merci d'être avec nous sur télévision Futur Média mbokk yi ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci fidélité bi ak ni ngeen taamoo suñu ay euh, programme euh, gis ngeen ni euh, dispositif bu exceptionnel la ñu jël fan yi yëpp waaye tey dafa yokku euh, ndax euh, fii euh, lii ñuy waxtaane boobu tey toll moo ko waral muy Covid 19 wala coronavirus fi mu toll tembe nag bi coow li tàmbalee ak léegi xam ngeen ni télévision Futur Média mu ngi leen di gunge ma fàttaliwaat leen ko à travers ay rendez-vous d'information di leen sensibiliser mais en même temps di leen accompagner dem sax ba bërki démb rek ñu ngi koy gis sénégalais yëpp àndandoo nañu ak ñun xam te gëm ni à chaque fois dara am télévision télévision Futur Média daf ciy dem ak yéen loolu moo waral tey euh, guddi gi euh, ñu leen digoon soirée bu exceptionnelle wala soirée bu spéciale boo xamante ni euh, dañu ko ñara nar a jagleel li nga xamee ni mooy suñu combat ñu soobu ci bopp ba tey tuddee ko daan coronavirus coronavirus nag saa yu ñu xëyee waxuma Sénégal kese waaye foo dem ci àddina lim bi day gën di yokku ci ay nit yoo xamante ni ñu ngi am feebar bi ay nit yuy faatu fii nag Sénégal am na situation boo xamante ni tolloguñ fa bugguñu ñu faa toll euh, moo tax ñu mobiliser euh, équipe yi ñu am yëpp euh, tey pour li nga xamante ni moom lañ leen nar a proposer di soirée bu spéciale boo xamee ni dañ ci recevoir ay personnalités yoo xamante ni dañu leen ràññee lool ci wàllu investissement fii ci Sénégal ñoom ci domaine bi ñu ne ñoom la ñu tuddee secteur privé secteur privé bi nag fii ci Sénégal dafa am doole xeetuk am doole boo xamante ni ay ndaw ay doomu Sénégal ay nit yoo xamante ni euh, nelawatuñu lekkatuñu naanatuñu bopp ba tey ngir jéem a xool naka euh, la ñuy jàppee euh, ci combat bi li nga xamante ni moo di combat wu daan coronavirus. ñooñu nga xamante ni ñoom la ñu tuddee ay investisseurs nekk ci secteur privé bi bëri na ay ndaw yu mel ni man wala mel ni yéen ñu ngi leen di liggéeyloo di leen fay weer ñooñu itam yor seen i njaboot ba noppi itam di góorgóorlu ngir jéem a mel ni ñooñee nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci secteur privé boobule. ngir jéem leen dooleel àndandoo ak ñoom ci dooleel gi ñu bëgg a dooleel gouvernement bu Sénégal ci euh, jàpp ci xeexuk euh, coronavirus bile moo tax télévision Futur Média tey mobilisé équipe yi ñu am yëpp pour jéem a xool naka euh, lañ leen di recevoir kenn ku ci nekk nga wax ak sénégalais yi ci stratégie yi nga xamante ni jël nañu ko ngir xeex lii di coronavirus mais en même temps joxe ay solution ay saafara yoo xamante ni namm nañ ko ngir mu juddu ci impact yi nga xamante ni Euh, coronavirus bi euh, def na ko ci wàllu économie waa France ngi jooy waa Amérique ñu ngi jooy àdduna yëpp di jooy ak li nga xamante ni moo di euh, coronavirus bi fii ci Sénégal nag kilifa yëpp jóg nañu ngir jéem a xool naka euh, la ñuy amee euh, saafara euh, ci jafe-jafe boobule ñoom ñoo ñi nga xamante ni ñoo nekk ci secteur privé bi doon ay ndaw doon ay investisseurs à tour de rôle on les recevra ci plateau bi yéen ñi nga xamante ni itam ay seetaan parce que booba tey gis ngeen ni mobilisation la ñu am ci dëkk bi muy télévision yi muy rajo yi kenn ku ci nekk yaa ngi jéem a xool naka ngay dajalee ay fonds ngir jàppale ko gouvernement bu Sénégal ñoom au-delà de seen ay stratégie yi ñu teg ngir jéem a saafara Euh, li nga xamante ni moom la ñu dund actuellement euh, ci euh, jàngoro bi la ñu tuddee coronavirus bi daañu xool ñoom itam kenn ku ci nekk lay sa doole nga jéem koo dugal ci guddi gi am na ñoo xamante ni téléthon la ñu ko tuddee man duma ko tuddee noonu jàppandal rek lay doon ci combat bi la nga xamee ni moom la ñu tàmbali boobu ba tey tuddee ko daan coronavirus fii ci télévision Futur Média nag ñu ngi leen di fàttaliwaat jël nañu dispositif bu am solo depuis très longtemps ci wàllu cet Euh, ci wàllu jàppale personnel bi nga xamante ni euh, ñoo fi liggéey ndax lu mënta ñàkk faaw mu am suñu rôle mooy di leen informer di sensibiliser mais itam di leen accompagner ci ni ngeen ko bëggee ci wàllu télévision par exemple tey normalement euh, waroon naa nekk man ak yeneen i animateur ci chaîne bi waaye dañoo gis ni euh, ginnaaw lu mënta ñàkk faw mu am ñu wàññi personnel bi jël euh, euh, tuuti ci li ñu fi am waaye jéem leen tàggat ba ñu góor góorlu ngir ngeen mën a am ay rendez-vous yu mucc ayib ngeen mën a dund période bi la nga xamante ni du Sénégal kese fépp foo dem ci àddina ñëpp jaaxle bëgguñu ngeen paniquer waaye xam leen nii li tubaab di wax mooy dëgg l'heure est grave puisque l'heure est grave ñun ñëpp dañoo fas yéene joxante loxo te tey exceptionnellement on sera avec le secteur secteur privé ñi nga xamante ni boobu ba tey ñu ngi investir te xaaruñu gouvernement ngir jéem a xool naka euh, la ñuy suqalee développement euh, bu seen dëkk bu ca kanamee dinañu dem am ñoo xamante ni ñun ñoo leen di fekki Euh, puisque euh, situation bee ko laaj ku mel ni par exemple Pa Mansour mbay normalement waroon na ñëw bokk ak ñun plateau bi mais xam ngeen ni fi mu toll mag ñi dañ leen di wax ñu toog seeni kër moo tax télévision Futur Média ci biir direct bi ñu leen di proposer tey on va se déplacer dem direct euh, këram fekk fekk nga xamante ni moo di Alaaji ay mbay moom it dina am ay kaddu yoo xamante ni dina ko fésal jëlee ko ci kookee nga xam ne ni moom moo jiite communicateur traditionnel yi nekk fii ci Sénégal tey buñ naan investissement fii ci Sénégal boobu ba tey gis ngeen taxawaayam ci fànn yëpp ba ci coronavirus bi le lim ci def ak yim ci def taxawaayam kenn du ne gulet moom itam on essaiera euh, d'entrer en contact ak moom euh, via appel vidéo parce que fi mu tollu tembe lépp loo xamante ni euh, jëm na euh, ci euh, entreprise yu mag yi lu ci ëpp am na lu tubaab tuddee télétravail ñoom ci la ñuy dox ñu bëri déplacé tuñu ndax jamono bee ko laaj et que fi mu tollu tembe ku amul lu important wala lu mënta ñàkk mën nga ko bañ a dem de fi nga toog sa kër mën faa lijjanti lépp loo xamante ni mën nga ko ngir xeex li nga xamante ni moo di coronavirus bi donc tey exceptionnellement di ngeen am soirée bu spéciale ci télévision Futur Média on va d'abord euh, jokko ak ki nga xamante ni euh, moo di euh, président Youssou Ndour moom mi nga xamante ni bob ba tey mu ngi àndandoo ak sénégalais yi àndandoo ak ministère de la santé ci li nga xamante ni moo di daan coronavirus président Youssou Ndour ñu ngi lay nuyu gërëm la. tey yaa njëkk a participer euh, ci li nga xamante ni mooy soirée bu exceptionnelle bii ñuy proposé euh, ci télévision Futur Média alors yow itam bokk nga ci ñi nga xamante ni fi mu tollu tembe lu ëpp ci seen liggéey dañu koy def à travers li ñu tuddee télétravail tout se passe maintenant ak euh, digital bi ñëwuloo mais mën nañu wax ak yow tey tout au long de cette soirée puisque yow itam combat bi la sa combat la muy daan coronavirus président sant di la gërëm di gërëm euh, équipe bi nga ànd yëpp euh, comme ni nga ko waxee léegi dama retenir grave l'heure est grave nañu def li nga xam ne moom la ñu professionnels yi wax li ñu ministère bi wax li ñu état bi wax ñu topp ko lu ñu tere ñu bàyyi ko lu ñu digal ñu def ko l'heure est grave ndax euh, tey li nga xam ne moom moo dajalee nit ñi te yow nga taxaw ci taxawaay bu ma sëkk mooy nan la ñu mën a defee ba lii nga xamee ni que daanaka drame la. ci mhm. monde bi. Mhm. nan la ñuy mën a fexee ba ba ba gàttal euh, évolution fii ci biir Sénégal ba pare li nga xamee daf koo nar a yàq tamit nit ñi jóg ci mooy Sénégal saa yu amee importance lu am importance nit ñi dañuy dajaloo taxaw yëkkateendoo xàccandoo dóorandoo. Mhm. looloo tax may rafetlu émission bi bu baax a baax a baax te di leen sant aussi que.

leur est grave te maa ngi nuyu aussi sénégalais yëpp di nuyu surtout ñi nekk bitim réew di am pensée bu mag a mag a mag ci ñi nekk Espagne ñi nekk Italie vraiment ñi ngi leen di seet di leen di leen xool di bokk ak yéen ñëpp di fagaru moo gën faju mu ngoog euh, li mu mën a laal nag euh, ci wàllu euh, ci wàllu koom defe naa tiital na ñi nga xamante ni ñoo nekk ci secteur privé bi ñu mel ni yow ak yeneen i ndaw yoo xamante ni jéem naa pour dajale leen tey ci guddi gi ku ci nekk indi sa xalaat ak xalaat boo am jëm ci saafara yi nga xamee ni fi mu toll tembe ñoo ngi koy xaar yow luy sa xalaat ci moom coronavirus bi nii mu mënee indi ay sooxe-sooxe ci wàllu koom surtout pour secteur privé bi waaw d'abord dama bi dafa nekk heure bi ñu nekk ni ci sensibilisation ñu wéy di sensibiliser ñu wéy pour affaire bi bañ a siiw na ñu wéy pour affaire bi bañ a saaw mm-hmm. loolu bu buñ ko fàtte mukk mm-hmm. waaye ñi nga xamee ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu économie ci wàllu liggéey ñoom ñi ngi commencé di alerter boo gisee secteur yu bare ñi ngi jóg di wax ne que ñu presque nërmeelu nañu mm-hmm. loolu moo waral ne anticipation bi tamit baax na ci waaye bu ñu fàtte nekk nit ñi nañ leen sensibiliser. waaye tey jii chômage technique bari na. ah oui ci secteur yu bare patron yi jaaxle nañu. Hmm. waaye ñi ngi àndandoo bokk ndey ak baay nekk ci ginnaaw président de la république moom nga xam ne moom lañu ñu fal. Hmm. teg ko ci kanamu réew mi. Hmm. àndandoo moom di yëkkateendoo di xàcceendoo di dóorandoo. loolu nag moo tax ma rafetlu lii bu baax a baax a baax di ci gërëm képp koo xam ne da ci jàpp te yaakaar naa ni tey dinañu wanewaat. ñun secteur privé que ne kenn demul ñu des ndax Sénégal bu soxla dañuy bàyyi lépp suñu intérêt ñun ku ci nekk. Mhm. daal di jóg loolu moom na taxoon ñun ñu jëkkati li nga xamante ni que mooy daan coronavirus. Mhm. pour euh, créer woon engument bi am tey ji mhm. waaye yaakaar naa ni tey à travers yow. à travers TFM. Mhm. nit ñi dañ gis mhm. incha allah c'est important. merci en tout cas à tout moment dinañuy jéem a jokkoo ak yow puisque léegi tout est possible grâce ak équipe euh, technique yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk tey ci télévision Futur Média je mhm. rappelle que euh, dañoo mobiliser équipe bu ndaw rek mais terewul émission bi day mag li tax mu mag moo tax euh, ñu fas yéene àndandoo ak yéen jéem a sensibiliser sénégalais y sensibiliser leen yéen ñi nga xamante ni yéen a àndandoo ak ñun en direct ci télévision Futur temps de retrouver euh, yeneen i invité yoo xamante ni comme président Youssou Ndour ñun ñoo leen di fekki euh, mm-hmm. ci seen kër à travers appel vidéo yi nga xamante ni euh, bëgg nañu ko amal mm-hmm. tey en direct ci télévision Futur Média je m'en vais recevoir invité yu njëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo ñëw pour fekk si ñu ci plateau bi on vous donnera ay numéro de téléphone ak ay information yoo xamante ni bu ca kanamee mën na leen a soxol pour yéen ñi nga xamee ni yéen a bëgg a ak ñun ci combat bu exceptionnel bi nga xamee ci guddi gi dañu ko njëkkee ak euh, investisseurs yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci secteur privé bi ay ndaw lañu ñu ràññee leen ku mu fi tudd sa tur rek euh, di nga xamee ni euh, teg na ay jéego yu bëri depuis très longtemps ngir gën a dugal loxoom ci développement wu Sénégal par exemple dina ñu recevoir léegi nii ku mel ni Idrissa Thiam mi nga xamante ni moo jiite waa Jàppo ñoom itam am nañu ay xalaat ak ay idée yoo xamante ni am nañu ko fas yéene ko indi ngir xool ñoom itam naka la ñuy euh, euh, bokkee ci xeex bi nga xamante ni euh, mooy xeexuk daan coronavirus bi dina dinañu recevoir itam ki nga xamante ni mooy Mansour Kama moom moo jiite CNES ku ne ràññee ci wàllu entreprise yeeg investissement yeeg secteur privé bi donc moom tamit il va nous rejoindre dans quelques minutes ci plateau bi Serigne Mboup mi nga xamante ni moo jiite chambre de commerce bu Kaolack moom tamit dinañu fekk si dans quelques minutes ci ci euh, plateau bi bu ñu naan investissement euh, ku ne euh, xam na taxawaayam moom président Serigne Mboup daañu recevoir itam Mame Khary Mbacké bu Raziak moom itam jigéen la jàmbaar la ràññee nañu ko moom it ci wàllu développement wu koom Euh, fii ci euh, Sénégal donc on va les euh, retrouver dans quelques minutes dañ may fekk si fii ci plateau bi numéro téléphone yi nga xam ni di ngeen ci mën jokkoo ak ñun dinañ leen ko jox fileeg ay minutes pour permettre leen ngeen wax ñu naka ngeen mën a def ba jàpp euh, ci euh, combat bi la nga xamante ni moom la ñu fas yéene entamé tey exceptionnellement euh, ci télévision Futur Média je rappelle encore que leur est grave c'est vrai qu'au départ bëgguñu woon kenn paniqué waaye fi mu tollu tembe ku yebul paniqué parce que mbir maa ngi yokku te ñaanu ñaanuñu fi yenn dëkk yi toll ci ay jafe-jafe te ñoom ñoo ñu ëpp moyen ñaanuñu yàlla Sénégal toll foofu loolu moo tax fi mu toll tembe ñëpp jaaxle amul politicien ne ñëpp a jaaxle moo tax kenn ku ci nekk ak ak ak ak Pastef ak farlu euh, yaa ngi respecté li nga xamante ni moo jëm ci yi tubaab tuddee geste barrière geste barrière yi bokk na ci dispositif bii ñu teg invité yi képp koo xamante ni yegg si nga euh, ci euh, loco yu télévision Futur Média da ngay njëkk a jubal ci coin bi nga xamante ni fa la ñu teg tout ce qui est produit antiseptique savon ak ndox nga raxasu fomp boo paree jël gel hydroalcoolique bi nettoyer sa loxo ñoom itam bu ñu yegsee ci plateau bi dispositif yi ñuy jël bokk na ci euh, sore lool euh, invité yi euh, ngir ñu mën a sàmm ñoom itam seen i kaaraange noonu ñu koy defee ak invité yi noonu la ñu ko defee ak personnel bi ndax ñoom itam kenn ku ci nekk ci ginnaaw fa nga ne am na ay matuwaay yu am solo yoo xamante ni direction bu groupe Futur Média jël na ko ngir sàmm ñoom it ñoom ñi fiy liggéey maanaam ñun seen karange ba ñu éviter li nga xamante ni moo di lii di euh, coronavirus donc on va euh, accueillir euh, premier invité yi ki nga xamante ni moo di monsieur Idrissa Thiam mi nga xamante ni moo jiite waa Jàppo moom la ñuy woo mu ñëw fekk suñu léegi nii ci plateau bi après dinañu recevoir ki nga xamante ni mooy président Serigne Mboup ñoom ñëpp bu ñu yegsee ñu tàmbali waxtaan wi ndaxte bëgg nañu ay leeral jëm ci ñoom ñi nga xamante ni ñoo nekk ci secteur privé bi naka la ñuy jàppale mais naka lañu jële jëlee seen i matuwaay ngir jéem a xool Euh, lan la ñuy teg comme ay stratégie ngir éviter euh, euh, baat boobu bugguma ko wax ay faillite ak ñoom seen ndax fi mu tollu tembe am na ay sooxe sooxe yu bëri yoo xamante ni njort nañu ko ci wàllu économie ak li nga xamante ni moo di coronavirus bi donc je laisse le soin aux équipes techniques de d'installer invité yu njëkk yi bu ko defee ñu mën a tàmbali waxtaan bi je rappelle que dinañu retrouver aussi ki nga xamante ni moo di Alaaji Bekaay Mbay daañ ko fekk kër Pa Mansour Mbay Euh, moom mi xamante ni moo jiite euh, communicateur euh, traditionnel yi donc ki njëkk a ñëw di Idrissa Thiam ñu lay gërëm bu baax monsieur Thiam merci de d'être là mën nga tooge noonu xam naa nuyoo beeg joxante loxo bi moom lu lu lu ñu tere la n'est-ce pas <laughs> donc te ngaa ñëw jege si ma léegi voilà ñëwal ñëwal nga jege si ma nii parce que foofu di nga Euh, sori loolu ak man asseyez-vous waaw mën nga toog comme ça ñu euh, tàmbali euh, waxtaan bi j'attends les autres invités ku yegg si rek ba raxas loxoom mën nañu ko bàyyi mu yegg si fekk si ñu ci plateau bi i Idrissa Thiam ñu ngi lay nuyu nga jiite waa jàppoo fi mu tollu tembe leur est grave ñëpp a jaaxle investisseur ou pas adduna bi yëpp am na nu ay njaqare yoo xamante ni ñoo ngi koy dund muy mbir moo xamante ni jaaxal na sax kudul yow ab Cheikh jërëjëf maa nuyu di la sant di nuyu ñuy seetaan ñëpp comme ni nga ko waxee loo am la man damay wax ne tey feebar ñuy wax coronavirus mooy suñu noon tey Sénégal yëpp mën naa ne benn noonu lañu am tey muy feebar bi jaaxal na ñëpp jaaxal na àddina bi waaye jaaxal na Sénégal tiital la Sénégal mais dama am yaakaar ci ne lu muy rëy rëy ak lu mu bëri bëri doole buñ jógoon ñu nekk ak nekk fasant ak moom fayit ak moom bu boobaa dañ koy daan muy loo xam ne lii ñëpp ci war a jóg ñëpp ci war a jàpp ñëpp ci war a def seen loxo gannaaw bañ gërëmee nag président de la république bi nga xam ne xalaat bu rafet bi ma am ci décision yi ci jël nit ñi fekk ci ko loolu ñu ngi ko ci encouragé bu baax di ko ci félicité feebar bi feebar bi ñëpp ci a jàpp. affaire bi affaire bi ñëpp la. parce que balaa nga naan da nga fay nekk. balaa ngay tal loo lekk. wala looy naan day fekk nga wér. soxla bu dee ñaar. dafay fekk nga wér. boo wérul benn soxla rek ngay am. pour fexe wér. kon noonu ñëpp la. na ci ñëpp jàpp. te respecté conseils yi nga xam ne moom la médecin yi joxe. muy am solo am yar am teggin respecté ko. buñ ko respecté mën na cee mucc. te ku lu waaye nga génne ko jéem ko jaay ma jàkkaarloog feebar bi loolu daal moo ci li nga xam ne mooy suñu xalaat tey di secteur privé bi yëpp ñoom ñëpp tey àndandoo nañ nekk benn say nekk benn doolo def benn kaddu ñoom ñëpp ku ñëw ak ku ñëwut kaddu bi benn taxaw pour jàkkaarloog feebar bi def ci liñ man ak luñ mënut wax yi ñu contribuer te yàlla tax réew mi tax loolu daal Pape Cheikh mooy li nga xam ne mooy suñu xalaat si. voilà euh, je pense que Mansour kamaa moo ñu fekk si léegi nii merci d'être là bienvenue mën nga euh, toogee euh, noonu itam sama wet ñu tàmbali waxtaan bi ak yow ñu ngi doon waxtaan léegi nii ak président Idrissa am monsieur Kama ñu ngi lay gërëm yow itam ci teewaay bi ci disponibilité bi la la la première question bi ma leen bëgg a poser surtout kilifa yu mel ni yéen lan moo tax ngeen jóg ngir jàppale sénégalais yi. ci euh, combat bile yëkkati ñëpp soxal ñëpp muy xeex jàngoro ji di coronavirus bi. Euh, jërëjëf nga baal ma ma commencé ci euh, remercier groupe TFM. Mhm. waaye remercier aussi. Mhm. soxna maam xarit mooy doog a yegg si mën nga toogee noonu waaw. bien toutes les chaînes de parce que je sens qu'il y a une grande mobilisation. Mhm. te ñun suñu rôle en tant que secteur privé mooy waxoon ñëpp. li nga laajte nag euh, bu ma lay tontu dama leen ne d'abord dañu war def suñu devoir. ñun ñoo dëkk ci dëkk bi ñun ñoo fi màggee ñun ñoo fi euh, te bu bés bu yàlla defee li muy def fii la ñu des. kon li nga xam ne mooy coronavirus te fi ñu toll ci àddina kenn mënuloo wax. fan la jëm ak fu muy yem mhm. boo nekkee chef d'entreprise te di participer ci sa koom-koomu réew mhm. di nga xalaat ne li war a ñëw ëllëg donte xamuloo ko na nga fexe ba def anticipation mhm. te ku xool li xew ci dëkk yu mag yi xam ne feebar bu mel noonu koom yu bari ci àddina mu ngi ko yàq te dañ ne mondialisation lañ toll suñu entreprise yu bari dañuy liggéey ak bitim réew dañu bokk ci ay chaîne de production dañuy euh, jële bitim réew di indi fii wala dañu jële fii di yóbbu bitim réew mm-hmm. marché yooyu yëpp bës bu tëjee musiba lay doon du baax kay du baax mm-hmm. alors loolu moo tax secteur privé banco doon benn mm-hmm. rafetlu d'abord que le président de la république taxaw ci ay mesures yu am solo yoo xam ne rafet lu nañ ko mais rafetlu aussi que dafa def en sorte que mu am une mobilisation nationale parce que même boo jëloon opposition tey ñoom ñëpp rangé wu nañu ci ginnaaw président de la république pour que li nar a dal Sénégal te ñu yaakaar ne yàlla mun mu ñu dal il faut ñu ñu fagaru ci il faut ñu pare ci kon dans l'économie sénégalaise déjà li commencé dugg lu metti la am ñu ay secteur d' activité yoo xam ne soit directement soit indirectement mbir mi laal na leen. commencé nañ ko yëg déjà. déjà ba ñee ngi tëj. ñee ngi def euh, wàññi seen personnel. kon secteur privé dafa nekk ci phase de concertation. boo xam ne dañu ne am na loo xam ne dafa jàmp. il faut ñu dugal ci suñu loxo. mooy moyens yi ñuy jéem a pour jàppale ko état bi mu jëm ci askan bi. mais de l' côté. li ci ëpp solo mooy yan xalaat ak yan matukaay lañuy ànd jël ak état bi pour que secteur yi nga xam ne dañu am problème te seen problème yi dafa nar a gën yokku wala ay secteurs yoo xam ne sax laalagu leen affaire bi waaye boo deful nag nañ ci yegg ñu ne nañu fexe ba waxtaan ak état bi mu nekk une concertation permanente pour ñu xool nan la ñuy saafara loolu yëpp bu mu jaaxal waa Sénégal que les organisations patronales que les chambres de commerce que tous les membres du secteur privé se mettent ensemble fan yi yëpp dañuy réunion le plus souvent à l'UNACOIS chez Idi Thiam pour xool nan la ñuy mobiliser des ressources waaye nan la ñuy mobiliser aussi suñu membres yi pour que li jëm ci affaire bi daal ñu bokk ci armée bi nga xam ne mooy armée Sénégal bi koy xeex waaw loolu suñu devoir la mhm. te euh, dañu war a jox état bi cëram mhm. rangé wu ci ginnaaw état mhm. parce que état mooy déterminé xam ngeen ne euh, président keroog conseil des ministres jël nañu dogal ne dañuy taxawal benn euh, comité de veille qui permettra d'ailleurs d'anticiper mais dafa am benn fonds fonds bu am solo boo xam ne dañ ko nar a def ci fonds boobu nag contribution yi fay ñëw demandé ñu sax secteur privé ñu bokk ci mais fonds bi dafa nar a jublu ci affaire économie bi ci affaire secteur yi ak ci affaire askan bi kon daal loolu daal mu euh, wax fi ñu toll nii ci li sax ñu jóg et gërëm leen comme may ngeen ñu plateau boo xam ne mun nañu lancer message boobu pour mobiliser toutes les forces vives et surtout tous les chefs d'entreprise de ce pays. Mhm, mhm. mais mais mais mais, mais courage bi euh, defe naa yéen ñëpp di ci wax maam Xarim Mbàkke rejoindre nañu président euh, Serigne Mboup itam fekk si nañu euh, boo demee ci yeneen dëkk yi daanaka ñi fa nekk ci secteur privé yëpp ñi ngi jooy. ñu ngi ñaxtu ñu ngi kaas boo demee fu mel ni France euh, tout le temps ñu ngi def ay reportage ci ay chef d'entreprise yoo xamante ne actuellement seen entreprise a ngi jëm faillite ndax coronavirus bi mais courage bi nga xamante ni yéen investisseur investisseur sénégalais yi euh, nekk euh, industriel patronat bi am ngeen ko ba nii di ngeen non seulement dugal seen loxo waaye joxe seen xalaat ngir àndandoo ak gouvernement bu Sénégal teg ay jéego ngir xeex li nga xamante ni moo di coronavirus bi Euh, courage boobu noonu ngeen am ba taxawal li tey man euh, laa bëgg ngeen expliquer ko sénégalais yi quand même. non dafa daa yow da baax rek boo nee courage. mais est-ce que courage la en fait. est-ce que courage la est-ce que defuñu li nga xam ne moo ñu war. Mhm. parce que suñu règle mooy dañuy créer richesse. Mhm. bu ñuy créer richesse maanaam dañuy créer li nit ñi di am dañuy créer ay xëy dañuy créer. économie boo xam ne day day day day day duñ euh, koy waxee day day law mm-hmm. lii ñëw mu nekk coronavirus bi dina indi gàllankoor bu mag ci loolu c'est sûr ah mbir nag bu fekkee danga nga tëdd sa biir kër ne lakk am na waaye yeggseegul ci man mm-hmm. bu lakk bi yeggsee ngay door a génn pour jël say matukaay dina nekk problème loolu moo tax mm-hmm. euh, ñëpp ànd ci ne euh, mënuñu toog bañ a def dara jooytu aussi dina am parce que ay travailleurs la ñu am donc ñu nax syndicats yi ñu ngi waxtaan parce que li nga xam ne mooy gën yomb boo amee problème mooy sa entreprise nga xool ndax da ngay wàññi nit ñi mais wàññi nit ñi drame la bu mag parce que père de famille boo xam ne da nga ko jëlee ci doon liggéey weer bu nekk nga koy fay nga ne ko mënatuma ko parce que coronavirus dafa ñëw. bu liggéey seeti kenn dootu la fay kenn ah. dootu yooyu yëpp moo tax ma ne affaire bi mhm. euh, li ko ŋànk mhm. dépassé nañu ñun waaye dañu war a mànkoo ñun ñëpp mhm. waxtaan ak ku ñu war a waxtaanal seetandoo ak ñoom ni ñuy defee loolu moo tax may insister et tout le secteur privé sur l'organisation parce que bu ñu jaaree ku nekk sa côté affaire bi doo ñu gagné guerre bi bu ñu nekkee nag une armée disciplinée rangée derrière un chef di waxtaan ak moom di ko xelal état bi di jël ay matukaayam ñu boole ci partenaires yi xoolal suñu mbokk yi nekk bitim réew niñ doon contribuer ci économie Sénégal nga xam ne li ñuy dajal di ko fi yónnee ëpp na sax li ñuy wax aide publique au développement mhm. tey seen dëkk yooyu ñu nekk Italie France foo munti wax États-Unis bu ñu yónneetul mm-hmm. dina indi problème ci réew mi mm-hmm. may daaneel ci ne fii réew mi toll war nañu xalaataat sax mm-hmm. économie bi nan lañ ko war a doxalee parce que foo ñu tirer leçon lii bu yàll defee ba mu jaar fi ba yàlla bum fi toog sax ba ñu war a demaat donc am na ay matukaay yoo xam ne tey la waaye war nañu xool matukaayu ëllëg yi tey nag gouvernement bi war na toog ak ñi mu war a toogal pour waxtaan ak ñoom. Mhm. ñu seet bu dee budget bi. il faut li ñu wax déficit bu bugguma dugg ci ay. ay termes économiques <laughs> waaye état bi am na comme yeneen dëkk yëpp xool lu mu koy yëgalaate. Mhm. bu dee croissance bi ñëpp xam nañ ne dina daanu. Mhm. donc budget bi bi ñu tegoon. ci croissance bi ñu waxoon. yooyu yëpp moo indi. ne mobilisation bi. au delà du secteur privé. jàngalekat yi ñii seen xel màcc ci économie ñëpp war nañ def ay kuréel te yéen aussi journalistes yi yéen télévision yi ngeen am ci cër bu mag dajale leen ñi ñuy sensibiliser di waxtaan di expliquer voilà en tout cas bàyyiwuñu benn secteur euh, gis ngeen euh, euh, ñii ñu dajale tey exceptionnellement te ñu ngi doog tàmbali euh, des na itam yeneen ni kilifa yoo xamante ni ñu ngi ci ginnaaw on les recevra ñoom itam à tour de rôle euh, euh, Kama li mu wax am na solo Idrissa Thiam itam dégg ngeen li mu wax balaa ñuy waxtaan ak yeneen kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu fekk si dina ñu jokkoo comme ni ñu ko defee sànq ak ki nga xamante ni moo di président yu Ndour ak yeneen i kilifa yoo xamante ni peut-être ñu ngi confiné wu ci seen i biir kër ndax fi mu tollu tembe phrase bi ñëpp di wax rek la ñuy wax ñun itam mooy l'heure est grave nañu góorgóorlu bu baax euh, ci euh, geste barrière yi nga xamante ni ministère de la santé euh, digle na ko et je rappelle que décision yi nga xamante ni moo joge ci gouvernement yi moo xam gouvernement wu France moo xam gouvernement wu Sénégal moo xam gouvernement wu États-Unis je rappelle encore que du ay décision politique ay décision la yoo xamante ni dafa joge ci ay borom xam-xam yu liggéey ak organisation mondiale de la santé ngir jéem a xool naka lañuy ñuy jéem a aplatir courbe bi la nga borom xam yi ci yokkuteeg bi la ñu tuddee coronavirus bi loolu moo indi euh, ñi nga xamante ni euh, ñoom la ñu tuddee ay nit yu investir ci secteur privé bi fii ci Sénégal euh, ku ci nekk ci wàllu wa nga féete nga jéem a xool naka ngay indee ay jéego ngir jàppale gouvernement bu Sénégal bu ñu jéem a xeex li nga xamante ni moo di coronavirus bi ndax mag ñi wax nañu ko lii ci ñag bi la jëm te balaa jëm ci ñag bi ñu jéem a xool naka la ñu koy gàttandoo ba bu yeggee ci ñag bi sax soo xesoo xëy du mën loola du euh, jafe noonu pour ñun ñi nga xamante ni euh, ñooy askanuk euh, Sénégal dañuy jokkoo ak alaaji Bekaay mbay mi nga xam ne ni moo ñu demal sànq ba tey kër alaaji Mansour Mbaye mi nga xamante ni moo jiite communicateur yu Sénégal HBK ñu ngi lay nuyu di la ziar di la massawu parce que fi mu tollu tembe ñun ñëpp ñu ngi massoo wante lii fi am daf ñoo jaaxal lii fi am daf ñoo tiital looloo sabab porteur de voix yëpp jóg ngir jéem a sensibiliser ngir jéem a jàpp ci combat bi la nga xamee ni buñ ci góorgóorluwul rek euh, du baax ci ñun alaaji Bécaye ñu ngi lay nuyu di la nuyu maa ngi lay ziar maa ngi am mbégte lool di nuyu ñooñu nga xamante ni ñoom nga toogal. Mm-hmm. te fu réew mi toll ci wàllu industrie ci wàllu liggéey ci lépp loo xam ne dafay yokk économie réew. Mm-hmm. ñooñu nga toogal ñooy ñi nga xamante ñoom ñoo ko yor fii ci Sénégal mhm. ñuy sant yàlla bu baax di julli ci yenent bi ñu nekk ci kër goo xamante ne nii këru mag la mhm. te ci sunu aada bu nu jaaxlee ci mag la ñuy dem waxtaan ak moom mhm. muy mag moo xamante ni tey jii mën na noo wax lu bari ci bu fi lu mel nii mu saana am mhm. naka la ñuy def dugguleet jàngoro dugg fi ci li nu fekkiwul ci wàllu histoire peste duggoon na fi mhm. rey fi ñu bari yàq lu bari ci économie bi tey jii ak fi réew mi toll ci wàllu économie feebar juddu ci àdduna bi di law jóge ci réew yu mag yi ba yegg ci sunu réew mi mhm. nga xamante ni bokkunu ci réew yu mag yi ci wàllu koom waaye bokk nañu ci réew yi gën a mag ci àdduna bi ci saawu booloo doon benn jotee ñu booloo ñu doon benn ñu bokk ndey ñu bokk baay Pape Cheikh li fi dugg di coronavirus feebar la boo xamante li mu lor ci àdduna bi bari na sunu kilifa le président de la république jóg jël jël ci ay matukaay. Mm-hmm. ànd ak ki nga xam ni moo di le ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr. Mm-hmm. ànd ak doomi réew mi yëpp. tey jii amatul parti politique. Mm-hmm. amatul syndicat. amatul mbootaay. li am mooy le sénégalais. le sénégalais ñoo ànd def benn dank. Mm. ngir xeex li nga xam ni musiba la di lor ay doomi aadama. doy ñu doon nag ci réew moo xam ne ci wàllu économie réew mu néew doole la. Mhm. buñ ko seetaanee li mu nu nar a yàqal li mu nar a jël ci réew day bari. Mhm. Pape loolu moo waral may nuyu bu baax Mansour Kama moomu nga toogal. Mhm. di nuyu sëriñ Mbuub moomu nga toogal. di nuyu ki nga xamante ni moo di Idi Thiam moomu nga toogal mhm. di nuyu tamit ñi nga xamante ni nii ñoo di mbootaayu investisseur te Papa Ngom jiite leen mhm. Babacar mhm. di nuyu Seneb bi nga xamante ni nii béy di aañ moo ko jiite di nuyu képp koo xamante ni homme d'affaires nga investisseur nga industriel nga doon nga koo xam ne sa alal yaa ngi koy jël di ko dugal ci réew mi tey réew mi moo soxla kon yaa soxla bi nga soxlaa réew mi dalaa jox tey réew mi moo soxla te képp kuy doomu réew mi jóg nga jël sa alal def ci jóg jot na de mbokk yi fi ñu toll danoo bëgg a booloo doon benn rey li nga xam ne danoo nar a rey muy coronavirus. coronavirus nan ko rey. buñ ko reyul dinañu indi li loraange. danoo nekk ci guerre. bu jëkkoon guerre ay bomb la. waaye tey jii virus la. te bu nu àndul ànd ak yar li nu wax ñu def ko. déplacement yi ñu wàññi ko. surtout yi ñu wàññi ko. ak yi. laamisoo bi ñu wàññi ko. xew yi ñu wàññi ko. Mhm. fépp foo xam ne dajaloo mbooloo moo fay am ñu wàññi ko. ñu ko sax. buñ ko deful loraange la indil. Mhm. kon mbokki réew mi ñu war a jóg li kilifa yi réew mi wax ci wàllu diine ñu jëfe ko. Mm. ci wàllu société bi ñu jëfe ko ndax loolu moo nu mën a muccal. Mhm. doomu aadama li koy muccal da cay jëkke loolu mooy li nga xam ne moo am solo danu ni nanuy raxas sunuy loxo bu nu duggee fenn bu nu nuyoo nanu raxas loxo yi fomp ba mu set jël li nga xamante ni ni moo di produit bi diw ko ci kon Pape Cheikh waaw alaaji bekaay <laughs> balaa ñoo dem ci alaaji Mansour Mbaye mhm. yegg ci biir jox ko kàddu bi mu yëkkati kàddu ya mu daan wax très bien ñu xool mbokk yi nii la ñu war a def voilà donc geste yi il faut ngeen respecté ko bu ko kenn caaxaanee cet gi raxas loxo yi ba mu set wecc raxas wi nag bu leen ko yombalal na euh, euh, raxas bi doon raxasuk profondeur ngeen jël saabu jooñ ju dugg ci ruq yeeg ruq ruqaat yu loxo yi te lii mën ngeen ko def plusieurs reprises euh, ci journée bi di ay gestes barrières yoo xamante ni moom rek moo ñu mën a dimbali ba ñu euh, moytandiku euh, jàngoro ji le nga xamante ni moo di euh, coronavirus Alaaji Bekaay wax na ko keroog président France wax na ko ñoom ñu ngi nekk en guerre àdduna yëpp a nekk en guerre contre li nga xamante ni moo di Covid euh, Covid 19 wala coronavirus bi yenn saa yi nga gis ñoo xamee ñi dañuy xaw a mel ni man euh, bàyyi seeni loxo ba du ñu am Pastef ak parlu gi war euh, ngir set gi waaye loolu dafay jur ay gàllankoor yoo xamante ni kenn du xam foo koy nettalee donc boo raxasoo ba noppi nga fomp say yoxo jël. Euh, mouchoir bi nga fompoo sànni ko directement ci euh, mbalit bi donc loolu bokk na euh, ci geste barrière yi nga xamante ni boobu ba tey borom xam-xam yi ñu ngi ñu koy digal wérgu yaram nag kenn rek moo ci mën dara muy borom xam-xam borom xam-xam bi docteur rek lay doon donc moom rek moo mën di joxe ay digle. ak ay tere yoo xamante ni dina tax euh, ñu mën a euh, moytandiku li nga xamee ni moo di euh, coronavirus ngeen bañ di déglu rek lu ne ngeen consommer ko wala lu ngeen dégg rek ci internet bi yooyu yëpp jarta faale ki jar déglu mooy docteur bi Euh, ndax ñoom rek ñoo euh, habilité euh, pour di ñu jox ay conseil yu am solo jëm ci naka la ñu mën a xeexee li nga xamante ni moo di coronavirus. Alaaji Bécaye boo raxasoo ba noppi ñu bàyyi la nga dem rejoindre Pa Mansour mbay mi nga xam ne yàkkamti nañoo dégg ay kàddoom bu ñu tollee ci situation yi. situation bi buñ ci taal tollee bëgg nañu déglu Alaaji Mansour Mbaye. dëgg la mbokk gis ngeen ni def loxo yi. Mm-hmm. amatul nuyoo. laami soo jeex. dañuy dox nank dem fekk alaaji Mansour mu wax nu nan la mbokk di war a mel mhm. nan la nit ñi war a ànde mhm. ndigal yi président de la république joxe mhm. naka lañ ko war a sàmme tey kilifa yi toog tey ci télévision Futur Média di ñi nga xamante ni wax naa leen ko ñooy tax réew mi ci wàllu économie duñu jaaxle dëgg la de ñooñu la ñu bëgg a waxtaanal tey jii ñu bari ci ñoom mhm. war a génne seen teraanga mhm. def ko ci réew mi mhm. ci seen bopp lan ko def kon mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp Pape Cheikh di am mbégte lool waaye di sant yàlla ndaxte lii lu fi yàlla wàcce la mu doon balaa balaa la boobu nag tey réew mi ñu war a dajale kilifa yi ku ci nekk joxe li nga xamante ne nii moom nga yaakaar ne mën nga koo dimbali réew mi ñu waxtaane ko ma toog ak sama papa sama xarit El Hadj Mansour Mbaye El tey réew mi wala àdduna yëngu na te li yëngal àdduna mooy coronavirus walla ñu ne Covid 19. muy feebar buy wàllaate ñu war cee jël ay matukaay doomi aadama yi war topp ci matukaay yin leen wax ngir ñu mucc ndax bu lawee sunu doole bariwul te loraange lanu mën a indil Alaaji Mansour maa ngi lay nuyu senegal yépp a ngi lay nuyu sa doom Youssouma jigéen mi ngi lay nuyu say say say rakk ñoo toog ci télévision bi les grands industriels de ce pays bëgg waxtaan ak réew mi jël seen teraanga def ci maa ngi lay nuyu mbay HBK maa ngi leen fay bu baax di la nuyu ak di la ñaanal yàlla may la gudd fan yàlla may la wér lii xew tey ba yu Youssou Ndour déplacé télévision ak technicien bi yëpp. ñu leen dem leen ca kër Hadj Mansour Mbaye ànd ak bekkaay mu sànni ay mu jële ko ci réew mi réy na ci man waaye nag li muy réy réy ci man peuple bi di la peuple sénégalais lii ba nu juddoo ba tey am at yi nu am mësuñu ko gis mësulu ko dégg corona bi bi xam ni moo dugg à travers le monde entier xam nga daan naa wax bu jàgg mhm. di wax le monde entier ah. mhm. ndeke mi ngi soog a ñëw nag mhm. di gërëm bu baax ki xam ni moo nekk ci bopp réew mi di le président de la république le gardien de la constitution dégg naa la gis naa la dégg naa sa message gis naa ni nga raxasoo gis naa ni nga sange conseil conseil des ministres bàyyi ba Bruno Diatta fa nu ko tuddee woon nga ni ministre bu nekk nan am ak moom deux mètres cinquante tey nag bis la boo xam ne mosul am Sénégal ñi xam ne noo nga koom-koomu réew mi am des employés ñoo toog noonu HBK yi wax na leen seen naa léegi âge yi di caam seen naa léegi ki xam ni baayam sama wóllëre la woon di kenn ci man di alxaaji Mansour Kama ñu tudde ko Seydi Mouhamadou Mansour borom daara ja li xew nag du Mansour Mbaye du bekkaay peuple bi muy peuple sénégalais noo woote woote bu rëy bii nag lu ko waral mooy tiit ku tiitul da xamul li xew ndax ku seetaan tey le ministre de France ak France ni nu baree doole ku seetaan la xew ci Espagne ak Espagne ni nu baree doole ku seetaan tey la xew ci Italie ak Italie ni mu baree doole xew en Amérique nu ni dugg na Sénégal ba am nañu fi cinquante six cas juróom yi faj nañu leen ministre de la santé wax des na juróom fukk ak benn ñun nag li ñu ciy muccal mooy lan mooy set li ñu ciy muccal mooy moytu ndaje li ñu ciy muccal mooy bañ ak xalaat li ñu ciy muccal mooy bañ di dox ci mbedd yi ak ci xew yi mooy bu takk amatee wala ngénte am wala leneen am safaan ba nit ñi bañ a dajaloo bég naa ndax gis naa ni léegi ñi xam ne sunu bopp tabaraka wa taala daf leen moom ca nu nekk ndakaaru ca ñoom feebar bi dalu leen kenn tàntatul wutatul ay chaise ñooñu xam nañu maladie bi na mu mel bekkaay lii mësul am mukk c'est pour la première fois dans l'histoire du monde entier lii am du daal wax xew na dëkk sàngam xew na France waaye waaye ñu ne Amérique mucc na xew na Amérique ñu ne Italie mucc na xew na Burkina ñu ne Sénégal mucc waaye ñun ñëpp àddina bi yëpp feebar bi yor leen ca dugg fa ñun ñi xam ne nag amuñu doole yàlla rek moo am doole waaye am nu tur am na nañu barke it ndax foo tuddee Sénégal à travers le monde entier xam nañu ko ñu ni gor yu baax yi tey dajaloo ñoom ñëpp nekk benn dégg message yu ki xam ni mooy le gardien de la constitution moom la ñu élu au suffrage universel dégg kilifa diine yi ñu ni ñoom itam ñi xam ni noo yore koom-koom bu réew mi nooy daje tey fu nuy daje TFM fi xam ni sama jarbaat sama xarit sama soppi yu sunu moo ko taxawal gisal Serigne Bouba Ngom ancien président ancien ancien ancien ba nekk tey président de la chambre de commerce remplacé sama xarit bu baax ba alxaaji Idrissa Idrissa tey ñun la mormati saara ngoogu moo dugg si noonu di raxas loxoom idi caama ngoogu moo si léegi raxas loxoom ñu ni kan ñu ne Hadj Mansour Kama ngoogu moo dugg si léegi raxas ak sunu jigéen bu baax Xadi Mbàkke soxna Xadi Mbàkke Sëriñ soxna Xadi Mbàkke wallaay mhm. dégg dégg lu waxam. Mbacke balaa si ñoo ngi lay ziara ak di la jox bi xam ni yàlla jox na la ci réew mi di wax nag bekkaay góor ñu baax ci xam ni ñoo fi nekkoon démb duñ daan wax rek Sénégal nangam xew na ñu ni waaw demal hôpital wala demal dispensaire waaye lii nag Sénégal yëpp la concerné mhm. lu tax bekkaay mhm. mooy feebar bu xam ne day wàlle feebar bu xam ni kenn am na ko walla ñaar fukki nit ak ñaar béykay ñun woon vingt-sept cas la am tey ministre bi ci boppam Abdoulaye Diouf Sarr moo taxaw wax ni am nañu cinquante six cas béykay yaakaar naa ni wax ji mooy lan mhm. mooy peuple sénégalais yéen ñëpp da ngeen déglu mhm. du mbiru caaxaan du mbiru Macky du mbiru Idrissa Seck du mbiru syndicat du mbiru entreprise mbiru réew mi la mbiru Sénégal ku tiitul da amul xel wala déggoo li xew à travers le monde entier. Mhm. kon nag ñun daal doon def lu dul déglu chef d'entreprise yi. Mhm. bu leen dégloo ba pare déglu ci dëgg-dëgg ñi xam ni nangu ci réew mi. Mhm. am ñu xam ne daana waxtaan ak ñoom. ba xam ne nag ca dégg dëgg réew mi ku ku ku jaxul. wallahi la ma sama sama di sëriñ ba wax. ni ma ku jàqul da nga nit foo daan dem France nga daan dem jël billet foo jëm yaa ngi jëm hôpital américain wala hôpital Pompidou noonu gën a jàq. jërëjëf gën a jàq Hadj Mansour. nee na nu xamante ku ku dox ca mbedd ma sax nu nu fayu la 135 euros. euro loolu moo xew El jërëjëf Bekay mu doon feebar boo xam Cheikh. waaw El Hadj Cheikh. Uh-huh. dégg nga kàddu yi Hadj Mansour yëkkati. macha allah muy kaddu yoo xamante ne nii. kàddu mag la waaye ah. xam nga réew mi dañu toll foo xamante ne nii Pape ah. dama bëgg ñu gën leen a ñaax feebar bi réalité la wallaahi réalité la feebar bi dafa am feebar bi dafay wallaate fi mu ne ku tiitul da ngaa day yàq réew mm-hmm. feebar bi di yàq koom-koomu réew mm-hmm. te kilifa réew mi mm-hmm. ci wàllu politique ci suñuy institution ak li nga xamante ni moo jëm ci wàllu diine joxe nañu xalaat bi ñu ànd ak yar Chine du ay garaba leen faj de déedéet danoo discipliné rek déedéet amul benn vaccin bu bees bu Chine am déedéet daf dëkk ba mu amoon hmm. dañ koo tëj ni kenn dootu fi dugg hmm. kenn dootu fi génn hmm. ñu tëj dëkk ba faj nit ña fa nekkoon kenn wàllatul kenn waaye bu ku nekk taxawee ci mbedd ni feebar bi amul feebar bi mën naa indi musiba te région bu nekk kon dina fa dugg te bu duggee ci région bu nekk dina indi loraange Aj Mansour balaa ñoo delloog Pape antenne bi doomi réew mi dégg leen ci wax tey jii ñi ngi séentu Abdou Aziz Ndiaye ñi ngi séentu Elimane Lam ñi ngi séentu Idi Thiam a ngi noonu toog ñi ngi séentu ki nga xam moo di Mor Mati Sarr ñi ki nga xamante ni moo di béy di aañ Cheikh Cissé ñi ngi séentu doomi réew mi ñi ngi séentu ñi nga xamante ni nii ñoo yor industrie réew mi ñi ngi séentu Demba Ka ñi ngi séentu Tafa Dia ñi ngi séentu Lamine Camara Badou Ndiaye Moustapha Ndiaye notaire Moumi Kebe Khadim Ba Ali Ndiaye Assane Ndaw Lika Ba maître Lika Ba sa doom ak Khadim Samb ñi ngi koy séentu ñi ngi séentu ki nga xamante ni moom moo di Baara Gueye Khalif Kamara ñi ngi koy nuyu Marcel Ndiaye ñi ngi koy séentu maam xari mi ngi toog ñu ngi koy séntu maam xare ngi fi ñu ngi tabaski caam ak ñu baax ñi rek Amadou baax ñu baax ñi rek alaaji Bekaay ñu baax ñi rek waa Pape waa ma ne ñu baax ñi rek ñoom ñëpp lañuy ñuy séntu tey ñu baax ñi nga xamante ni ñi ngi bokk ci réew mi parce que bëgg nañu tey bu émission bi bu émission bi demee bay jeex de la de waxtaan bi ak solution yi ñuy proposé ñoom kenn ku ne yëkkati dugal sa doole ci combat wu xeexu coronavirus bi xeexu coronavirus. voilà ñu ngi xaar seeni loxo ñu ngi xaar seen participation ñu ngi xaar ay montant ñu ngi xaar ay somme euh, euh, pour tey ci guddi gi incha allah dem mhm. ma bëggoon balaa nga balaa ñu laa delloowaat antenne bi âge Mansour. waaw. voilà Jibekaay ñu ngi lay dégg. bu soobee yàlla âge Mansour balaa ñoo dem. yaakaar naa ñooñu ñu lim. mooy doomi réew mi te réew mi soxla nañ leen li nu am ci réew mi lañ ko liggéeyee tey jii réew mi soxla na leen Hadj Mansour lan nga leen di wax ak ñeneen ñi ma tuddul waa tuddagoo Baba Diaw muy nit ko xam ne Sénégal xam nu ko am entreprise bu rëy tuddagoo Tahirou Sarr am entreprise Mbaye Diop Thierno Ba et tant ñu xam ni ñoom ñëpp daan leen tudd ca tuuti ndax du mbiru Mansour Mbaye du mbiru Bekkaay du mbiru Pape Cheikh du mbiru Youssou Ndour mbiru peuple bi la te ki nu jiital ci peuple bi élire ko au suffrage universel wax na jëf na kon léegi nu bàyyi <laughs> ndeysaan déglu Pape Cheikh waaw kay Alaaji Alaaji Bekkaay jërëjëf jërë ngeen jëf. jërë ngeen kon ñu ngi toog. voilà ñu ngi toog à tout moment ci yéen waaw à tout moment mën nañu ñëw ci baax na jërëjëf ñuy ñuy am mbégte taram yow tamit ci ni nga gérer émission bi. c'est normal c'est normal combat wu ñëpp la combat wu ñëpp la voilà Sénégal la ko soxla c'est sûr c'est sûr. tey jii Sénégal euh, bu euh, euh, soxla sax taximan normalement war nañu jël taxi bi ngir mu am lu mu liggéeyal Sénégal donc tey Sénégal moo soxla lu mel ni télévision Futur Média Sénégal moo soxla média yi Sénégal moo soxla journalistes yi Sénégal moo soxla investisseurs yi Sénégal moo soxla homme d'affaires yi parce que fi mu tollu tembe l'heure est grave xëj na ñu ngi ciy wax boole ci tuuti reetaan waaye bu yeboo ngeen xam ni cas bi critique na à un point boo xamante ni bu ngeen farluwul rek mën ñu dem euh, ba toll ci situation yoo xamante ni euh, kenn ñaanul yàlla yegg fa ñu fàttaliwaat leen ni euh, dëkk yi nga xamante ni ñoo ñu ëpp moyen segam ñoom ñoo jaaxle fu mel ni France fu mel ni Italie fu mel ni États-Unis waxatuma laak ñun nag Sénégal fi mu toll tembe lim yaa ngi wéy di yokku ndax ngoon gu jot ngeen gis point de presse bi ministre de la santé di organiser ngeen di ko seetaan ci télévision Futurs Médias yooyu yëpp jar tiit donc ñu ngi leen di ñaan yi et que kilifa yii ñu fi dajale tey kenn ku ne euh, di nga jéem ci sa xalaat joxe waaye di nga jéem itam ci sa poos joxe ngir jàppale gouvernement bu Sénégal ñu gërëm bu baax euh, kilifa yi fi ñëw tey bokk na ci euh, Serigne Mor Mati Sarr Alaaji Mor Mati Sarr mi nga xamante ni euh, yàgg nañu ko ràññee lool ci wàllu investissement ràññee ko itam bu baax ci taxawaayam ci réew mi moom itam defal nañu honneur ñëw bokk ci gan yi ñu dajale ci invité d'honneur bu spécial bi la nga xamee ni sensibilisation rek lay doon ci télévision Futur Média donc Mor Mati Sarr Sarr bu GES euh, bu GES euh, ñu ngi koy gërëm bu baax dina euh, dinañu fekk si Euh, xam naa bu ca kanamee tuuti euh, ci euh, plateau bi ñu ngi may xamal itam ni Cheikh Cissé bu UNACOIS Yeesal moom itam mu ngi dog di yegg yegsi moom it bokk na ci kilifa yi nga xamee ni bàyyi nañu lépp ngir àndandoo ak sénégalais yi ci xeexuk li nga xamante ni moo di coronavirus bi donc ñu ngi koy gërëm bu baax moom Cheikh Cissé ci teewaay bi dina ñu fekk si bu ca kanamee tuuti ci plateau bi ñu ngi jot itam ay yóbbante yu am solo yu jóge jógee euh, ci ay borom doole euh, ñuy joxe ay montant xam naa montant yi benn bu ci nekk euh, mënees naa ko lim bu ca kanamee yéen ñii seetaan moo xam ngeen nekk Sénégal wala ngeen nekk bitim réew bu dee yéen itam comme investisseurs yii fi ne bokk ci secteur privé bu Sénégal bëgg ngeen dugal seen doole li ngeen am Euh, ci xeexu jàngoro bile euh, di euh, coronavirus bi ñu ngi leen di xaar yéen ñëpp am ngeen place tey ci soirée bu exceptionnel bile ñu ngi may xamal itam ni Mamadou Dieng bu Inakwa Jàppo moom it si na il va nous rejoindre tout à l'heure ci plateau bi président Serigne bu merci d'être là ñu ngi lay gërëm Euh, ci euh, teewaay bi xam naa euh, suma xarit Xaadim Samb itam dina ñëw itam joxe xalaatam ci combat bi la nga xamee ni combat national la combat wu ñëpp la donc ñu ngi koy gërëm bu baax laataa ñuy jox kàddu gi Euh, soxna maam Xari Mbàkke euh, mu Sëriñ Murtala di suñu sang di suñu xarit di suñu jigéen moom it ñu fonk ko lool ndax jigéen gi mu doon ba pare nekk jàmbaar euh, dañuy njëkk a jox kàddu gi président Sëriñ Buub merci d'être là ñu ngi lay gërëm ci teewaay bi li ma wax ñëpp rek laa lay wax fi mu tollu tembe l'heure est grave président waaw asalaamaaleykum aleykum salaam maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu président de la république ci taxaw bi nga xam ne gouvernement bi taxaw na ko pour aar njaboot gi di ziyaara di nuyu suñu wasila sëriñ Muntaxa Bachir ci dalal gi mu dalal xel yi ba pare jël alalam njëkk ki di gërëm ñi fi nekk ñëpp tamit ci samay kilifa samay mag su ngi ah, mbokk ci nangu gi nangu ñëw toog ci palaatu télévision bi ñëpp nekk benn bopp pour taxaw xam ne tey Sénégal moo soxla mm-hmm. ndax buñ déggoon tey ñu ne Sénégal am na ñuy jël di ko envahir di ñëw pour ñëw pour recoloniser ñu yaakaar naa waruñu taxaw rek ne militaire yi rek nañ dem sénégalais bu ne da nga taxaw jóg kon tey bu dee réew yi nga xam ne ñooñu ëpp doole ñoom ñoo taxaw ñu ne on est en guerre kon ñun tamit dañoo war a taxaw ñu ñëpp nekk en guerre muy taxawaayu patronat bi taxawaayu organisation professionnelle ah taxawaayu chambre de commerce yi nga xam ne nii ci quatorze régions bu ne benn président nga fa ak ay ensemble ay nitam ci domaine bépp kon ñu xam ne daanaka li taxaw fii mën nañ wax ne dañoo ñëw rek waaye li leen ëpp doole ñi ngi ci biti di ñu seetaan waaye nit ku ne bu fekkee ñëw nga taxaw taxawaayu mbooloo mi taxawaayu uh, nit ñi war nga war nga doy ci ci wax di wax rek ne tiit jar naa am waaye tamit nañ gëm yàlla yàlla moom wala nablu wannakum bi shay'in min al xawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi waaye daf ne wa basiri sabirina nañ muñ waaye tamit du tee ñu combattre ko ndax l'islam sax bu daan wax ne dox leen ngeen woow nin ci lislaam da leen daan jox ngeen wut ay yat ñu wut ay jaasi ak gara pour dem combattre ko ànd ak yàlla yàlla doog ñu ko ñu man koo gañe kon man li ma ci gis rek mooy euh, li ci kilifa yi war a wax scientifique yi wax ko door président la république mi nga xam ne ni moo yilif ñëpp joxe ci exemple scientifique yi wax ko docteur yi wax ko ministre la santé ministre du commerce ministre du tourisme président Youssou Ndour ak ni suñ papa bi euh, euh, Alaaji Mansour wax ko ak ñi nga xam ne ñi ngi war a ñëw daanaka loolu nit ñi xam nañ léegi nan lañ mën a moytoo jàngoro jàngoro ji li ci des rek mooy ñu sóor leen mooy ndax yaakaar naa gouvernement bi am na matukaay jël na matukaay yu dal xel yoo xam ne nii yaakaar naa fu ñu dégg jàngoro ji dans les minutes qui viennent danañ ci agir ndax man barki dem rek gis naa kenn koo xam ne dafa xaw a tiit ci loolu mu wax ma ko ma waxe ma woote matul huit heures de temps ñëw ne ñu ñëw defal ko test ba ne ko téye négatif. kon loolu maa ngi gis ne sama xel dal na ci ne gouvernement bi am na matukaay yi tax loolu liñ war a prévoir mooy tey su lépp taxawee lu nit ñi di dund ñi néew doole ndax dañuy jàpp ne Sénégal dañoo nekk ñu ëpp ci ñun nekkuñ Dakar ñi ëpp ci ñun ñu ci région yi te ñin nekk ci région yi mën nga ne quatre vingt pour cent li ñuy dunde mooy tey suba mhm. dañuy xëy wuti seen dépense mhm. je pense que euh, loolu ñooñu lañ war a xalaat toog ne tey est-ce que ñooñu buñ toogoon ñaari weer liggéey amul marché yi tëj na fan la ñuy war a dundee. Mm-hmm. ndax loolu lu am solo la. Mm-hmm. ndax tamit nit ki ne il faut prévoir. Mm-hmm. waaye yaakaar naa loolu président Mansour Kama ak président Idi Thiam ak président Cheikh Cissé ak Pamor Matissar ak Baydi ak Mbagnick dem bu ñu wootee réunion ndax ñoom. boole ñu man ak Eliman laam ak Aziz. daanaka biñ commencé dox liñ waxagun a ki nit daanaka ci man liste bi ma yor trente personnes yoo xam ne kenn ku ne nee nga mën naa commencé joxe dix millions. gis nañ lu ma dix personnes yoo xam ne nee nañ mën nañ commencé joxe cinquante millions. ci tàmbali rek ci tey tey loolu tey ci suba ak léegi. ma yóbbante koo xam ni tamit di ko jaale dañu am sunu mbokk boo xam ne bu sañoon tamit dafiy toog mm-hmm. muy Mbaye Guèye mm-hmm. yàlla dafa def démb ab mm-hmm. sëtam bu am ñaari at nekk dafa am dëj effectivement mu am dëj waaye moom tamit nee na lépp loo xam ne ni ay ay ay ay ay ay ay nawlem engagé nañ pour def ko bu EMG bu EMG ak muy ñoom Ablaye Diak ñoom Pape Ali Guèye ak man daal lima gis ci lii musuma ko gis ku ma ci woo rek. Mhm. nee nga mën ñun amuñu problème. Mhm. ndax fi ne nii tey xeex la boo xam ne nii tey. Mhm. ñun ñëpp ko bokk. kon nag yéen ñi organiser affaire bi tamit ñu ngi leen ci gërëm bu baax. li des rek li des rek mooy. taxaw ànd ko mu bañ a nekk ay wax rek ñu def ko lu concret ba nga xam ne nii Sénégal dana ci mën a génn comme ni nga xam ne réew yu mag yi ñu ngi ciy jéem a génn mhm. dëgg la gouvernement bu Sénégal mu ngi euh, teg ay jéego média yi tamit lu mel ni télévision Futurs média ak ñeneen ñi ku ci nekk yaa ngi dox ci wàllu sensibilisation waaye tey ñëpp tiit hmm. euh, ngir euh, jeexitalu feebar bi mhm. ci li mu mën a indi ci wàllu sooxee hmm. ci économie loolu ñëpp la tiital fi mu toll waaw nga tiit bi surtout secteur privé bi man li may wax mooy xam nga nit euh, général boo ko yóbboo ne ko demal xeexi mhm. nekko ko tiital yaa ngi wàññi capacité nañu tiit nañu moytu mhm. waaye nañ am courage mhm. man dama jàpp ne tey Sénégal yëpp dañ leen war a woo ci courage ñu moytu luy indi feebar bi waaye buñ ne c'est la fin du monde ndax musiba bu ne am na fi yàlla dimbali na ma ñu génn ci te yàlla tamit ay musibaam Euh, yàlla moom ay ay ay ay nattoom du musiba dañ koy wax musiba ndax yàlla amul musiba maa ngi ciy jéggul mhm. yàlla ay nattu la ñuy teg te natt yooyu nañ ko nangu mhm. waaw ndax natt lu ci gën a metti mooy ñu jël sa ruu te bés bu nekk nit ñu jël ruu kenn kon li fi des mhm. mooy nañ am courage def taawunu jàppalante ci suñ biir et surtout sax taalibe yi nga xam ne nii sax dañ daan ñoom ci mbedd ci kër yi lañ leen daan sarxe te léegi ñoom ci seen bopp sax dañ leen a confiné ne duñ génn ñooñu tamit ñu jëra jox xalaat la sino mhm. danañ dem ba nga xam ne dañuy nekk naan dañuy faj feebar mhm. fekk te feebar bi gën a garaaw ci nit mooy xiif mhm. waaw feebar bi gën a garaaw ci nit mooy xiif na xiif mën a laa andil feebar boo xam ne ni sa giru dund dutute ñetti kon man daal damaa d'accord ne papa tiit bi baax na waaye tiit bi na nekk tiitu jàmbaar tiitu jàmbaar ñu jog ñun ñëpp taxaw dëkk ko te respecté règle yëpp yàlla mën na ko jeexal suba mhm. waaye yàlla mën nañu ko fi wàccal feeg ñetti weer nga ne feeg ñetti weer mhm. bu doon day am yàlla nañ ci yàlla musal bu mu am ñetti weer waaye ñu fexoon ba nga xam ne bu doon am ñetti weer tamit mhm. nan la ci Sénégal di génne voilà te buñ paree tamit yaakaar naa lii buntu la ñun senegal yëpp ñu xam ne sénégalais moom sénégalais réewam rek ko ñor gis nga dañuy wax li ñuy wax esprit nationalisme loolu dafa bëgg dafa bokk sax ci gëm yàlla dañuy wax ubbul watan min al iman mhm. tey fii ñu toll doo ko rapproché kenn de mhm. da nga dégg ko ne ma ah tubaab bi yëpp dem nañ mhm. waaye mais man ne ko sénégalais yi nekkoon étranger yëpp tamit ñi ngi bëgg a ñëw dëgg la yàlla ñu dimbalee loo xam ne ni kenn ku ne fa nga dëkk eh. boo toogoon tey ci bitim réew mi ne la sénégal ma ngay tàkk loo mën a defa def dangay ngay ñibbisi eh. ki fi dëkkul nag lu mu mën a def pour dem la ñun tamit c'est la même chose li ci ëpp solo rek mooy ah ñun ñu mën a taxaw taxawaay boo xam ne nii mhm. danañ xam ne buñ xëyoon confiné tëj suñu dëkk mhm. du tee ñu añ du tey ñu reer du tey ñu lekk loolu mooy xalaat ba sànq rek ba mhm. sànq rek euh, bi ñuy préparé émission bi maa ngi tooñ équipe yi maa ngi naan leen euh, euh, tubaab bi ñuy jox marché yëpp daw nañu léegi investisseurs yi yéen rek yéen ñi dëkk Sénégal yéen a fi des ku yebu rek jox leen bopp même bu yi xam nga loolu sax loolu sax gis nga Pape dafa nekk loo xam ne sax duñ leen ko waa France ñëpp daw nañu yóbbu seen i investissement duñ leen ko rapproché xam nga yéen investisseurs sénégalais yi des dama ne la man duñ leen ko rapproché loolu mooy li normal xam nga lan mooy li li li nga xam ne nii moom mooy liñ war a xalaat dama mës liir benn document boo xam ne nañ ñoo xëy na sax du loolu benn document boo xam ne nii cheikh bu Dubaï mu wax ko gars yi dañ fa demoon ne ko waaw ñun gis nañ ne yow investisseurs yi bëgg nañ fi ñëw waaye luñ bëgg a def yow sa waa réew ngay jàppale mu ne leen priorité numéro un c'est mes nationaux deux c'est mes nationaux mais yéen su ngeen neexee ngeen am priorité totale mu ne lan mu ne travailler avec mes nationaux kon tey ñun jàpp nañ ne réew mi du réew moo xam ne dañu war a wax ne ñun rek ñoo fi war a nekk du réew mm-hmm. tubaab yi képp koo xam ne ni war nga fay ñëw liggéey mm-hmm. war nañ fi am liggéey waaye nañ sédd ne mm-hmm. yàlla lii mu ñu teg natt bi natt na ko waaye ku jàng alxuraan da nga xam ne wax na ne afalaa yaroona annahum yuftanuuna fi kulli aamin marratan aw marratayni suma laa yatuubuuna wala hum yuzakkaruun ñu baal ma ne ci wax yàlla def ne mhm. xanaa seetlu woon ne ma andi leen musiba benn yoon ñaari yoon ñetti yoon mhm. waaye du ngeen ci tuub te du leen du leen tax ngeen régissir ne lii lii war na leen mën a dal. voilà kon yaa ngi wax yaa ngi wax yaa ngi wax lu am solo président Serigne Mboup dama ci bëggoon profité rek ci parti boobule euh, euh, jox kàddu gi euh, soxna maam Xarim Mbacke mu Serigne Mourtada. Hmm. soxna maam Xarim jiite li nga xamante ni mooy Razia merci d'être là ñu ngi lay gërëm bu baax soxna maam Xari guddi na toogaay bi yàgg na waaye jar na ko ndax fi mu tollu tembe combat wu ñëpp la man ak ñii seetaan. ak képp koo xamante ni rek euh, euh, euh, coronavirus bi jaaxal na la damay bàyyi nga nuyook suñu xarit yi laataa may dugg ak yow ci waxtaan wi bay wax sa taxawaay tey ci combat bi la nga xam ni investisseurs yeeg ñi nga xamante ni ñoo nekk ci secteur privé bi soobu nañu ko ngir xeex coronavirus bi ñu ngi lay nuyu bu baax soxna maam Xari Mbàkke nuyu sama mbokku téléspectateur yëpp ak téléspectatrices yi euh, di nuyu euh, sama mbokk yi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi tey mm-hmm. euh, di ñaanal sama sang bu tedd bi Serigne Touba Serigne Mountakha suñ borom may ko wér ak gudd fan ak mboolem kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi mm-hmm. tey Pape boo xoolee ñun ñi fi dajee mm-hmm. kenn ku ci nekk am nga kuréel kuréel goo jiite bi nga nekkee chef d'entreprise ba noppi dafa am kuréel gu nga xam ne yow yaa ko jiite donc tey ci loolu lañu fi teewee Eh, teewaal leel fi mboolem waa Raziat mhm. kuréel gi nga xam ne mooy Raziat eh, eh, di wax ne que boo gisee booloo bi am tey secteur privé bi àndandoo booloo doon benn mhm. parce que Sénégal moo soxla mhm. parce que président de la République moo woote ah parce que ñun suñu kilifa moo woote ndax dafa jëf muy Serigne Touba Serigne Mountakha moo njëkk dindi deux cent millions dugal ko ci feebar bi kon xam nañ ne wéradi gi lu sérieux la Euh, lu lu yitteel sénégalais yi la. Euh, loolu moo tax bi nga xamee ne euh, secteur privé bi woote na. ñun ñu daal di jug ndax ñun comme ni ma koy waxee suñu réew moo ñu yitteel. sama waa dëkk di waa Touba ñoo ma tax a jug. te wéradi gi bi mu duggee Sénégal bi ñu nee dakaar dañu ci teg Touba. may profito ci plateau bi tey di rafetlu mboolem kilifa diine yi ci réew mi. seen taxawaay ak seen mm-hmm. kaddu ak seen ñaan mm-hmm. ah, ndax bi wér a duggee Sénégal defe naa ne kilifa diine yëpp muy Touba muy Tiwaawan muy ci laayeen yi muy ñaseen yi mboolem kilifa diine yi ci réew mi mm-hmm. taxaw nañ ànd ak président de la république ci combat xeex bi ñuy xeex coronavirus ci ñaan ak ci digle ñu wattandiku wéradi gi xam ne wattandiku wéradi ci sunna yi la bokk ah digal taalibe yi digal jullit yi jullit ngànnaayam mooy ñaan donc nañu ñaan te moytandiku wéradi gi nga xam ne mooy coronavirus. Pape Cheikh tey sama teewaay fii su ma fi teewee faaw ma tudd moodu moodu yi. mooy les sénégalais de l'extérieur. ndax man sama waajur Cheikh Mouhamadou Mourtada moo taxawal mboolem kër Serigne Touba yi ñu tudd ci bitim réew. taalibe bu na na la. mboolem kër Serigne Touba yi ñu tudd ci bitim réew mhm. commencé ko ci Afrique jàll Europe ba États-Unis mhm. Cheikh Mouhamadou daa moo ko sanc moo ko rëdd mhm. taxawal ko kon mën nañoo wax ne tey yoonu murit ci extérieur Serigne daa moo ko samp kon dafa mel ne tey wéradi gi dafa laal njabootam ndax ñun dañu jàppee ne moodu moodu yi suñuy bokk lañ ndax bëgg ak yërmande gi nga xam ne Cheikh Mouhamadou daa amoon na ko ci ñoom rawatina tey dëkk bu mel ne Brescia nga xam ne boo fa demee yaa ngi fay fekk kër Serigne Touba tey bu ñu toogee di seetaan ci télé yi ak di déglu ci rajo yi li nga xam ne moo xew itali xew France xew Espagne euh, dafay daf ñuy metti dafay sori ci ñun ndax li ko waral mooy ay jàmbaari Serigne Touba dañ faa nekk ay jàmbaari jullit nekk fa doon liggéey ngir seen réew doon liggéey ngir yoonu murit ndax bu ñu fàtte ne que ah, ñooñu ñuy wax moodu moodu yi ñu contribué wu lañ ci développement Touba ak ci développement yoonu Mouride. Mhm. ak ci développement Sénégal lu Serigne Touba mas a woote ku mhm. fi nekkal Serigne Touba loo mas a woote moodu moodu yi kenn mënu leen ci dugal nañ ci seen loxo mhm. kon tey bu ñu eggee ba ñuy wax ne que tëjal nañ leen réew mi ngir euh, wéradi goo xam ne dafa am loolu ñun bu ñu ko waxee ak bu ñu ko waxut lu metti ci ñun la metti na lool waaye ma leen di wax ne euh, sama waajur Cheikh Mouhamadou Moutada sama sëriñ. Mhm. bu ma saana dem ci di réew yi set di leen nemmeeku ñaari kàddu rek la daan wax. Mhm. na ngeen ragal yàlla na ngeen topp yàlla. Mhm. Euh, jàpp naa ne euh, taalibe Serigne Touba bu dëggal. fu mu nekk ci àddina bu jàqee bu wooyee Serigne Touba. mu taxaw mu jàpp naa ne kenn ñaanu ko yàlla. waaye taalibe Serigne Touba bu dëggal. fu mu nekk ci àddina. bu génnee àddina gis Serigne Touba teeru ko mm-hmm. kon nañu dalal seen xel euh, te xam ne li ndogal gu yàlla indi la mm-hmm. ñi nga xam ne itam jóge nañ fa bëgg a dugg ci réew mi dañ leen di wax ne leen bu ñu dugg see mm-hmm. nañu dem kër doktor ñu seet leen ngir ñaari yëf ñoom bëgg seen réew bëgg seen njaboot moo leen taxoon a génn uti lu ñu am luñ mas a am yónnee seen njaboot dund ndax fi mbas mii toll ndax ko ñooñu déglu déglu docteur rek rek rek kay war war war ku ne te Pape ki nga xam ne da doon nekk bitim réew di liggéey mhm. di yónnee njabootam mhm. kooku bu ñëwee Sénégal ngir dimbali njabootam ak bëgg njabootam war naa mën a tax bu dem kër docteur signalé wu ñu seet yaramam dëgg la ah ñi nga xam ne itam ah, dugg nañ ci réew mi lii du gàcca mhm. eh, na nëbbutu jarul làqatu Mhm. nañu génn wane mhm. seen bopp mhm. ngir aar seen njaboot ngir aar seen dëkk ndax bëgg seen njaboot ak bëgg seen dëkk moo leen taxoon na dem bitim réew waaye daal nañu xam ne mboolem kilifa diine yi ci réew mi ñu ngi ànd ak moodu moodu yi ah lii leen dal tey ah, bu loolu jàllee Pape ma ñëw ci secteur privé bi tey ñun koo ci gis yaa ngi xalaat sa bopp yaa ngi xalaat sa njaboot mais yaa ngi xalaat say employé ëllëg fu ëllëg sax ak ci man bu ma xëyee par exemple damay woo samay chef d'entreprise leen laaj mbaa yéen a ngi sensibiliser nit ñi mbaa kuy ñëw di liggéey si yéen a ngi koy wax muy raxas ay loxoom parce que tey boo gérer ay employé doo ñaan yàlla mukk lu mel nii dugg fa déedéet kon ñun ñaari xalaat lañu am muy sa njaboot gi nga yor sa biir kër ak njaboot gi la yàlla booleel ngay liggéey ak ñoom ah, di xalaat itam ci wàllu économique bi ndax Pape Cheikh koo gis mu nekk chef d'entreprise dafa bëgg dëkkam mhm. ñu booti ci yow mhm. nga jël risque di liggéey di leen fay sa biir réew jigéen surtout di liggéey di leen fay mhm. fu la première jotee yaa ngi xool balaa la cinq nan ngay def ba fay sa emploi yëpp mhm. kon kooku bu bëgg dëkkam rek mooy mooy réagir noonu ndax dama koy wax industrie mooy développer dëkk mooy euh, mooy créer ay emploi kon tey ñun euh, li nga xam ne moo dugg ci réew mi muy coronavirus ñun ñëpp dañu war a takk àndandoo doon benn jàppale président de la république ngir jàngoro gi bañ a law ci réew mi mm-hmm. bañ a tasaaroo ci réew mi euh, loolu daal euh, tey jii moo tax ñu dajee fi mm-hmm. maa ngi gërëm nag euh, kilifa yi fi teew mm-hmm. ci xalaat bi ñu xalaat ba boole ma ci plateau bi c'est tout à fait normal ndax ndax ci nga bokk soxna maam Xari Mbàkke moom sëñ Mourtala ñu ngi lay gërëm bu baax di rafetlu sa taxawaay ñu ngi tàmbali nag di wax yenn ci ay montant yoo xamante ni ñu ngi koy jot Euh, ngir euh, jàppandalu kilifa yi fi ne euh, jëm ci xeex li nga xamante ni moo di coronavirus bi dañuy njëkkee ak soxna maam xari soxna yow mi lay tàmbalee ndaxte mm-hmm. bi ma yëgee léegi nii ni dugal nga montant bu toll ci dix millions ngir xeex coronavirus bi dama ne dugguleen def nga ni Eh, eh, ki fi teewal Serigne Touba rek donc ci taxawaay ak ci tànk yooyu rek ngay dox ndax fi mu toll tembe Sénégal moo la soxla te bi la Sénégal soxlaa dugal nga ci sa ay loxo loolu ñu ngi la ciy gërëm bu baax donc 10 million nga yëkkati teg ko tey ci guddi gi eh, ngir àndandoo ak président àndandoo ak kilifa yi nekk fii ci Sénégal ngir xeex li nga xamee ni mooy coronavirus bi àndandoo itam ak secteur privé bi surtout Euh, ngir euh, xeex jàngoro ji li nga xamante ni moo di coronavirus donc ñu ngi lay ci gërëm bu baax euh, lan nga ciy wax soxna maam xarit waaw Pape Cheikh loolu sama contribution la ci biir secteur privé bi ngir ñu jàppale président de la république xeex jàngoro ji di coronavirus waaye kuréel gi nga xam ne moom laa jiite parce que loolu man soxna maam maa ko joxe. waaye kuréel gi ma jiite muy Raziat ñoom itam ña ngay dajale te xam naa ne danañ indi ñoom itam uh-huh. seen contribution uh-huh. ci biir secteur privé bi uh-huh. di wax ne loolu nga wax dëgg la ñun bi sëriñ Muntaxa wane yoon wi mhm. ci la ñu jugee mhm. parce que daf maa mas a wax ne ma damaa mas a ñëw ziar ko am lu ma ko jox ci benn événement mhm. mu tëye ko ne ma loo ci jublu ma ne ko dama lay indil sa tabaski boobu ak tabaski la woon <laughs> mu siggi xool ma ne ma nii rek la de lii rek da laa doon def ba egsi fii ma egsi tey nit boo nekkee ci réew dégg dara bul xaar ku la woo jugal nga jëf li nga war a jëf mhm. mu ne ma loolu mooy tax a egg fi nga bëgg a egg mhm. loolu moo tax tey jii ñu jëf jëf jii mhm. te fas yéene ànd nag ak secteur privé bi ci ginnaaw président Macky Sall ba daaneel daaneel euh, wéradi gi nga xam ne mooy coronavirus bu génn suñu réew te bañu fee bàyyi nag ay ay ay jeexital muy lu ñuy wax sekel ci wàllu économique bi euh, ci wàllu euh, wér-gi-yaram gi ak ci wàllu yu baree bari parce que comme ni ñu koy waxee rek wax dëgg yàlla lu tiital suñu mbokk occidentaux yi mhm. loolu xajul Afrique mhm. kon ñun dañuy ñaan ci barkeb Serigne Touba mhm. yàlla na fi wéri di gi génn te bañ fee def ay dégâts yu bari loolu daal lañu amoon lu ñu ci wax voilà donc euh, euh, dix millions la soxna euh, maam xari joxe laataa may demaat ak président Serigne Mboup parce que man joxe bi itam daf ma soxal bëgg naa ku ne rek li nga am nga dugal ko ci xeexuk jàngoro bile di coronavirus bi c'est pas pour rien ñu def soirée bu exceptionnel bi ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci secteur privé bi ndax ñoom it buñ ci defee seen doole rek defe defe naa combat bi dina gën a yomb pour sunu autorité yi monsieur Mansour Kama gis nga ni ku ci nekk ci réew mi yaa ngi dugal yaa ngi joxe montant euh, soxna maam Xari Mbàkke joxe na 10 million euh, am na ay euh, ñu may lim bu ca kanamee tuuti ci ay montant yu ñuy yónnee en temps réel nii ci moment bi nga xamante ni ñu ngi amal direct bi ci télévision Futur Média muy loo xame ni patronat bi da koy rafetlu. Hmm. merci beaucoup maa ngi gërëm bu baax soxna si comme maa ngi gërëm ñi nga xam ne. Euh, gàddu nañ seen alal dugal ko ci mais dama buggoon surtout indi ay leeral xam nga bu ñu ne secteur privé yow mi toog fii sax ci nga bokk dafa yaatu yaatu boo xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo créer ay organisation patronal wala organisation professionnelle wala nekk euh, à la tête des chambres de commerce dañu am nit ñu bari ñu ñu nekk suñu ginnaaw ñu nekk suñu ginnaaw ñaari euh, façon la ñuy doxale bi affaire bi melee nii euh, xaw na jàmp ñu bari yëkkati nañ seen alal dem jënd ay matukaay yóbbu ko ministère de la santé euh, ñu ci bari aussi bañ koy def defuñu ko pour ñu tudd leen dañ ne rek spontanément jàpp nañ ne euh, war nañu jàppale ministère yi parce que ñëpp xam nañ budget Sénégal fi mu yem am na ñoo xam ne dañu jóg ne li leen gën soxal mooy personnel bi nga xam ne ñooy accueillir malade yi wala di leen faj il faut ñu jox leen matukaay yu mot parce que ñoom la ñu war a jëg protéger mm-hmm. ba ci biir loolu boo demoon ministère de la santé di nga fa fekk ay liste ñoo xam ne yóbbu nañ fa loolu nga génn ci loolu am na ñoo xam ne seen société ni mu toll ñuy jëflanteex état bi ñooñu ci secteur privé la ñu bokk waaye aussi feeñal nañu seen contribution euh, boo jëlee ku mel ni Sonatel wala ñeneen euh, société yu mag yoo xam ne ñu ngi ci réew mi ci ñun lañu bokk ci ñun la ñuy jëflanteel waaye dañuy jëflanteel état bi donc mun nañ ne contribution secteur privé loolu aussi nañoo yokku ci mm-hmm. li tax nag ñu euh, di leen di remercier mooy bi ñu waxtaanee suñu biir ci fan yi mm-hmm. dañu ne dina baax ñu ñëw comme offrir ngeen ñu plateau bu mel nii mm-hmm. pour ñu lancer appel parce que nee naa la guerre la boo xam ne peut-être xam nañu fi mu commencé mais xamuñu fi muy jeex fan la jëm dëgg la de <laughs> donc loo ci dajale tey mhm. loo yaakaar ne loolu bari na mhm. wóoru ne mhm. dans euh, dans un mois doo dolliwaat donc dañ ko bëgg a def loo xam ne ay objectif yu ñu fixé la et au fur à mesure nit ñi di yaatal di ñëw di yaatal di ñëw Euh, président Serigne Mboup wax na lu am solo buñ nee koom-koomu réew mi la affaire bi song dañ ciy dugal ñi nga xam ne dañuy liggéey te amatuñu liggéey waaye ñi amul woon dara te di xëy tous les matins di jéem a buuxante ci ay kaar pour ñëw Sandaga pour lu ñu amee dépense yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xam ne il faut ñu sóoraale ko ci biir moo tax bu ñu nee économie bi le coronavirus bi attaqué nañ jàpp ne la pauvreté dina mun dina accentuer wu parce que croissance bi dina wàcc nañ jàpp ne la solidarité nationale bi ñuy wax war nañ ko gën force kon ku ci dugal foo mun munti toll yaa xam ndax bitim réew nga nekk walla fii yaa ngi jàppale sa réew pour que mu mun def face mais lépp li ñuy dajale pour ma dalal ci xelu nit ñi dañ koy gàddu pour nekk derrière l'État parce que État mooy organisé État moo am responsabilité ne ku nekk lii laa la cëral ci affaire bi kon dina am ñoo xam ne nañ continuer di jàppale ministre ministère de la santé mais l'appel du secteur privé c'est de mobiliser le maximum de moyens yaa xam ndax xaalis la wala matériel. bu ñu ko dajalee nag dañ koy jébbal état bi moom mooy wax. fan la koy dugal fan koy dugal. très parce que lépp ci combat bi voilà ah. ci biir bi. Ah. a les besoins des entreprises qui sont en difficulté. Mm-hmm. mais comme je di dit il y a les de la population. Mm-hmm. il y a les des travailleurs. Mm-hmm. donc loolu yëpp moo ñu dugal ci ne ku nekk bu beddee ko ci sa koñ. doo résultat bi nga soxla. mais ñun ñëpp bu ñu àndee. ubbi yaatal boole ci ñëpp bu ñu bàyyi kenn ci ginnaaw voilà loolu daal moo tax ñu toog fi tey ginnaaw contribution yi nga nar a li ci ëpp solo pour ñu mooy appel bi ñu lancé di ko lancé nag tous les jours mhm. à toutes les bonnes volontés mhm. tous les chefs d'entreprise mhm. nañ ci dugal seen loxo parce que le combat moo ko exigé te buñ ko bu buggee remporter te foofu lay daanele dina soxla ay moyens mais dina soxla organisation et discipline. organisation et discipline. voilà mobilisation en tout cas du secteur <coughs> privé euh, damay libérer euh, euh sunu euh, sëriñ soxna maam Khady Mbacké bu ko defee beneen gan mën ñoo fekk si jërëjëf Balaye sax ñu ngi lay gërëm bu baax yàlla na taxawaay bi yàgg. kontaan nañu et puis gërëm la bu baax. Euh, ci 10 millions yi nga xamante ni moom nga joxe tey euh, ngir jàppale secteur privé bi ci jàppandalam euh, ci xeexuk coronavirus bi tey mobilisation Euh, euh, daanaka la nu woote euh, ci télévision Futur Média jërëjëf balaay sa kontaan nañu yow boo toogoon ñaan rek mu doy waaye da ngay ñaan ba noppi boole ci dugal sa loxo je rappelle que soxna Maam Xari Mbàkke joxe na montant bu toll ci dix millions Idrissa Thiam balaa may ñëw ci yow dama bëgg ci ginnaaw ñu indil ma Serigne Mor Mati Sarr moom it mu ñëw fekk si ñu ci plateau bi di ngeen am peut-être ay numéro de téléphone puisque actuellement am na ñu bëri ñuy laajte naka lañu mën a def euh, pour joxe seen participation euh, ci mobilisation au secteur privé bi euh, dinañ leen ko wax fileeg ay minutes sànq itam président Serigne bu maa ngi dégg ngay wax ni am na ñu bëri ñoo xamante ni jokkoo nañu ak yow ngir ñoom it dugal seen doole ci combat wu secteur privé bi. Pape xam nga dajaloo bi ñu dajaloo fii. Mhm. dafa war a nekk signal bu fort. Mhm. du sax ndamoo. naan joxe naa lii joxe naa laa xëy na manoon na nañoo wax ndax li ma la wax rek tey ci suba ci suba ci 10 rek léegi télé ay téléphone rek kenn ku fi toogal xam nga man moom comme damaa bëgg xaalis ci période yii nii damay bëgg damay daanaka liste bi ñu yor montant yi yooyu laay bëgg <laughs> man ak ñoom Ilimane d'accord daanaka sax liste bi mën na 600 million ci ah. li nga xam ne nii ay nit ñi engagé nañ ko d'accord lu minimum uh-huh. waaye kenn ku ne da ngay jël sa engagement. Uh-huh. personnel muy ay promesse de ko def. Mm-hmm. ñun groupe CCBM parce que liñ ci bëgg tamit. Mm-hmm. mooy dañu bëgg nit ñi dégg ko. Mm-hmm. man koo def. ndax euh, sama waajur Alaaji Baare dafa am lu ma sa joxe. kokki daa di ne bu ko kenn wax. bëgg sëñ mat saxeer yàlla na sëñ mat saxeer ñu ngi daan jàngal ne. wax leen ko ndax su yéenewu leen ko yool ndax su ngeen ko yéenewu leen yool wax leen ko keneen dégg ko def ne moom ndax euh, addis am na mu ne addallu alal xayri ka faa'ili mooy tegtale lu baax comme ñu ko def loolu la kon ni mam xari def lu am solo la ah man dana wax euh, ñun group euh, CCBM groupe CCBM envisagé nañ pour génne cinquante millions. cinquante millions. waaye. Uh -huh. progressivement. d' accord. ah ni muy demee mooy vingt millions yi. Mhm. moom disponible nañ ñu mën koo joxe. suñ mhm. décidé. Mhm. autorités yi wax ñu fan lañ koy dugal. d' accord loolu moom leer na. donc cinquante millions. Wow. progressivement mais vingt millions yu disponible. léegi nii voilà cinq millions yi joxe nañ ko tey Kaolack. ci ay matériel ak gouverneur. xam naa dangeen ko gis ci presse bi. waaye du fait que maladie bi euh, c'est-à-dire ñi ngi combattre dara ndax combattre bu ñëwoon suba suba suba. jeex na. conséquences yi dañ ko war a gérer fii trois mois. conséquences dafa bari ndax ay sénégalais ngi jig ñibbisi. kon li président Mansour Kama wax. Euh, président Idi wax ko. yëkkati ci suñu kàddu ca kaw. su nit joxee fukki dërëm sax nañ leen di joxee na fukki dërëm. moo tax ma lay laaj ma lay laaj na nit joxee tamit man dama ne. Uh-huh. Uh-huh. cinquante millions engagé naa ko. d' accord d' accord vingt millions yi moom dee demee mën naa teew. Uh-huh. cinq millions yi joxe naa ko tey. kaw mais amul ñeneen ñu la jox nii. déedéet ñi ñu joxe. mi ngi ci liste. Ah. liste baa ngi nii ñoom ñëpp. mooy miss bi Bécaye Mbaye doon liir. d'accord mi ngi ci xaw ma dañ koy liir wala dañ leen koy bàyyi. mën nañ ko liir mën nañ ko liir. waaw mën naa la ko jox yow pour pour pour téléspectateurs yi dégg ko ñu mën a xam kan la ak ku nekk ñaata la joxe comme maam xarit ni mu joxe. waaye lii la. Mhm. daanaka asaka la. ci li ma testé gun. très bien léegi nag li ci des mooy. suñu kilifa yi nga xam ne ñoo ñu jiitu ci yëf yi. Mhm. tracé yoon yi. waaw ndax xale yi. nang nañoo génne seen alal dimbalee ko waaye li may wax tamit Sénégal yëpp mhm. ndimbal bi tamit mhm. ne nekk ndimbalu porte à mhm. am na ndimbalu joxe xaalis mais am na ndimbalu kenn koo xam ne wóor na ne mi ngi denn kër goo xam ne nii nañ koy nemmi ko def partage mooy dund bi mooy yi joxe ceeb ak ñoom seen ceeb ah, yëpp très bien parce que comme man maladie bi tiitalu ma tiitalu ma de xam lu tax yàlla may nañu xarañ yàlla mën na ñu xarañ. mais affaire bi garaaw na de. waaye waaye yàlla may na ñu xarañ. may na nit xarañ. Mhm. balaa mat weer ñaari weer. Ah. yàlla danañu dimbali. amiin kooku incha allah loolu lu ma dal xel la. amiin sëñ Mountakha wax nañu ko. waaye les conséquences yi mu nar a jur. yooyu lañ war a lañ war a commencé gérer léegi. conséquence boobu nag solidarité. Mhm. ak am moyen yu teg. Mhm. su Trump demee ba ne léegi man américain bu ne danaa la jox 1000 dollars. Ah. ah ça veut dire moom. waxul affaire faju ku feebar mi ngi kam conséquence nit ñu nekk seen kër te ëllëg ñu am luñ <laughs> kon ñun nañ jóg garaaw la lu garaaw wax affaire dund bi dafa garaaw état bi moom man góolu naa ne am naa kóolute ne mm-hmm. am na nañuy moyen am na xam-xam am nañu xarala pour combattre maladie bi ku ndax tamit sant yàlla mm-hmm. wax nañ fi quarante pet mais Sénégal yàlla dimbali na kenn faatoo ko fi te yàlla bu fi kenn faatu kon loolu sant yàlla la léegi nañ ñun secteur privé nañ dogaloo mm-hmm. niñ mane ci kaw ñu def ko ñi dend ak seen morom dend ak muy magasin muy cantine muy nangam ak nangam sa morom nga dimb dimbali sa morom mhm. pour ceeb wala nangam surtout man fi nga xam ne fii lay attiré attention mooy daara yi nga xam ne nii dañ daan dunde yelwaan te léegi liñ leen wax mooy dañ leen na ñëw tëju ci biir pour dunde dunde dunde seen seen seen lu leen di dimbalee. Mhm. waaw voilà donc euh, euh, dama bëggoon ñu euh, ñëw ci tur yi nga xamante ni ku ci nekk am na loo joxe ci montant bu am solo ngir jàpp ci combat xeex li nga xamante ni moo di coronavirus bi du feebar bi en tant que tell waaye jeexitalam ci réew mi moo tiital ñëpp. moo jaaxal ñëpp euh, président Serigne bu wax na ko léegi nii sagam président wu Amérique euh, muy première puissance du monde ñoom moom moo jaaxle waxatuma la ak président wu France wala président wu euh, beneen dëkk fii ci Sénégal na ñëpp jog ngir xool naka lañ ci jàppee alors président Idrissa Thiam joxe na dix millions waaw joxe na dix millions Mansour Kama joxe dix millions mm-hmm. muy ay montant yoo xamante ni ma fàttaliwaat leen ko tey mobilisation bu exceptionnelle jóge euh, ci secteur privé bi ak patronat bi euh, ngir jàppale euh, gouvernement bu Sénégal ci xeexu jàngoro bile di coronavirus bi am na ñu bëri ñoo xamante ni ils sont conscients de fii feebar bi jëm ak ñun am na ci ñoo xamante ni ils sont pas du tout de fii jàngoro bi jëm segam nag ay dëkk yu mel ni France ma fàttaliwaat leen ko ñoo jaaxle waxatuma la ak ñun fii nga xamante ni euh, mooy Sénégal bokk ci dëkk yi nga xamante ni euh, seen euh, développement des na mais heureusement yàlla baaxee nañu ay kilifa yu mel ni Mansour Kama ay kilifa yu mel ni Idrissa Thiam ay kilifa yu mel ni Serigne Mor Mati Sarr mi ñu doog fekk si léegi nii ci plateau bi nga xam ni référence la pour génération yu bëri ci wàllu investissement tey ñaata ndaw ñoo fi doon jàmbaar grâce ak Mor Mati Sarr mu defal ñu honneur ñëw fekk si ñu ci mobilisation bi la nga xamante ni moom la ñuy woote non seulement euh, euh, teg na euh, ci table ji montant bu toll ci dix millions moom Alaaji Mor Mati Sarr waaye da cee boole itam àndandoo ak ñun fas yéene àndandoo itam ak gouvernement bu Sénégal ak secteur privé bi ngir xool naka euh, la ñuy indee ay saafara euh, ngir xeex li nga xamee ni moo di euh, coronavirus bi ñu ngi lay nuyu di la ziar Sarr ngay suñu way jur di suñu soppe di suñu kilifa Sénégal yëpp fonk la lool tey li ma laaj ñi fi rek laa lay laajaat heure bu garaaw la Sénégal tollu ci heure bu garaaw la sunu kilifa yi tollu ci njàqare ak tiis la sénégalais yëpp toll ndax feebar bi euh, jaaxal na sax ku dul sénégalais yéen kilifa yu mel ni yéen ngeen jóg euh, ngir euh, mobiliser wu kenn ku ne dugal sa loxo ci komba bile lan la lay def El Hadj Mor Maty Sarr. jërëjëf Pape maa ngi nuyu ñi ma fekk ci plateau bi ku mel ni. Mansour Kama sa caam sëriñ Mbuub ak yow mi nga xam ne yaa diri sa débat bi ñu ngi nuyu itam ñi nuyu seetaan ak ñi nu fi yebal ak ñin ñëw toog te ñu am ci ñun kóoluteef bokk ci liste boobu nga téye wala liste bële euh, sëriñ téye ñu tudd ci seeni bopp def ci seen alal te du ñëwal leen fi ñu ngi nuyu ñoo ñëpp di leen gërëm di wax ne am nañu yaakaar bu rëy ci participer ci li nga xam ne moom la yàlla indi ci jamono indiwu ko rek ci Sénégal daf ko indi ci àdduna tey muy loo xam ne mësul am ci àdduna bu nu fekkee mbaa tey ku mën a wax ne fekke na ko daana am mbas mu am ci réew walla ay réew waaye lu daj kapp àdduna mu ngi door a am loolu nag jaaxalut yàlla nun jaaxal nanu waaye jaaxalut yàlla mi nga xam ne moom lu jóg xam na mhm. te te day fekke te jaam yi ay jaamam lañ danañ ko dénk suñuy loxo ñaan ko li ñëw ëpp na suñuy loxo ëpp na suñu xalaat ëpp na suñu gis-gis waaye moom loolu jaaxalu ko yàlla nañu ko jagal yàlla nañu ko téyel yàlla bu bu fi dara yàqu li yàqu yàlla na fi yem ci adduna bi yëpp mhm. su ko defee nag secteur privé bi am nañu xalaat jóg ànd ak gouvernement bi ànd ak askan wi ànd ak sëriñ si ak doomu aadama yi ci réew réew yi yëpp pour ñu fexe ba wàññin wi yàq gi bañ a ëpp tax na ñoom jóg nañ di ci def seen alal ak seen xalaat ak seen taxawaay ak seen ñaan ak seen bëgg-bëgg pour yëf yi regle ba bañ a ëpp loxo euh, nattu bu ñëwee lañ ci war a ñaan yàlla nañ ko attal lii yàlla indi na ko yàlla nañ ko attal amiin amiin nun ñii fi daje kenn ku ne dafa am ci mbooloo moo bokk ak am ñoo xam ne joxe nañ seen alal bokk ci mbooloo ak ñoo xam ne joxe nañ seen alal te bokkuñu ci mbooloo ndax su ñu waxee man Mansour am na mbooloo mu mu jiite am na jëmmi boppam am na lu mu def ci jëmmam. jot naa jot naa benn dix million léegi nii mu ngi jógee ci As Ndaw Ndukumaan. As Ndaw Ndukumaan boobu As Ndaw Ndukumaan moom joxe na léegi nii euh, montant bu toll ci dix million As Ndaw Ndukumaan ñu ngi koy gërëm bu baax. waaw dix million yi bari na. Mhm. bu ca kanamee da nga ko gën a jëlaat ko mhm. nga tudd ñëpp. Uh-huh. ñi nga xam ne ñii seen sec egsi nañ. Mhm. ñii seen sec wax nañ ko te ay gor lañ. te seen wax mën nañ koo jàpp. su ko defee nga liir ko ndax it ñu ngi nuy déglu tey nit bu la joxee yëfam di la déglu déggul nga wax ko wala mu wax la la mu la faydaam te waxoo ko day am lu muy nuru ci laa bëggoon ci laa bëggoon ñëw nii sax ndax montant yi may euh, yi may jot nii am na solo euh, dafay dalal xel Euh, donte fi mu tollu tembe euh, feebar baa ngi wéy euh, di lakkal àddina fii ci Sénégal nag ñi nekk ci secteur privé bi yëpp jog nañu ngir dugal seen loxo ci xeex li nga xamante ni moo di coronavirus bi donc je disais As Ndaw joxe na enveloppe bu toll ci dix millions As Ndaw Ndukumaan loolu la joxe ku mel ni Lamine Camara Lamine Camara Lamine Camara euh, transitaire euh, moom tamit euh, joxe na montant bu toll ci dix millions voilà Lamine Camara transitaire joxe na enveloppe bu tollu ci dix millions Badou Ndiaye itam di transitaire moom tamit dugal na montant bu toll ci dix millions voilà dix millions la Badou Ndiaye transitaire dugal dugal Moustapha Moustapha Dia Moustapha Dia bu euh, Sipa voilà xam nga Moustapha Dia nag mooy borom savon la main moom tamit euh, joxe na montant bu toll ci dix millions ak mille cartons savon la main ngir fësal ak bokk ci combat bi nga xamante ni euh, combat wu ñëpp la alors maa ngi gis itam. Demba Ka EDK OL moom it euh, joxe na montant bu toll ci dix millions fukki millions la euh, Demba Ka EDK OL joxe euh, tey ci guddi gi ku mel ni Mbagnick Diop moom tamit joxe na montant bu toll ci dix millions voilà Mbagnick Diop joxe na dix millions ci guddi gi tey ku mel ni Moustapha Sow euh, Moustapha Sow voilà Moustapha Sow ñu ngi may xamal ni euh, joxe na montant bu toll ci dix millions euh, ba pare mi ngi ñëw voilà donc moom contribution am ñu ngi koy xaar plus montant bu tollu ci dix millions moom la Moustapha joxe. alors Mbaye Gueye EMG malgré tiis bi mu am président Serigne wax na ko sànq. Euh, moom euh, bu doon sagoom dina ñëw waaye mënta ñëw ndax lii euh, tegu ci kawam terewul moom it joxe na montant bu toll ci dix millions donc Mbaye Gueye EMG ñu ngi koy gërëm bu baax ci vingt millions yi mu joxe vingt millions plutôt voilà au lieu de dix millions vingt millions la mbay gay EMG joxe président Serigne Boub Bamba Ndiaye SA moom tamit joxe na montant bu toll ci vingt millions voilà vingt millions la Bamba Ndiaye SA joxe Euh, loolu ñu ngi ko ci gërëm bu baax euh, muy euh, jàppandalam ci xeex li nga xamante ni moo di coronavirus Papa Ali liggéey di sunu kilifa moom itam joxe na montant bu toll ci vingt millions voilà je rappelle que chiffres yi dafay tomber en même temps man ma koy jot di leen koy jox donc muy montant bu toll ci vingt millions jóge ci Alaaji Papa Ali Gueye ñu ko ci gërëm bu baax Euh, euh, ñu euh, jëlaat beneen montant bu toll ci vingt millions jógee ci daam Dame Diané voilà donc Dame Diané joxe na montant bu tollu ci vingt millions Amadou Seck Eurogerme moom tamit joxe na tey ci guddi gi montant bu tollu ci dix millions Cheikh Cissé UNACOIS Yeesal Cheikh Cissé mu ngi fi d'ailleurs euh, dina ñëw fekk si ñu bu ca kanamee tuuti ci plateau bi euh, pour contribution wam mais en plus de contribution bi muy joxe euh, ci ay solution ak xalaat joxe na montant bu toll ci dix millions donc Cheikh Cheikh Cissé UNACOIS Yeesal ñu ngi koy gërëm béy di añ xelam yëpp mu ngi ci mobilisation bi télévision Futur Média def ku ne xam taxawaayam ci secteur privé bi euh, moom bay di añ joxe na montant bu toll ci dix millions voilà donc dix millions yooyu moo joge ci euh, ki nga xamee ni moo di euh, bay di añ je rappelle que montant yi dama koy jot en temps réel di leen ko communiquer yéen ñi nga xamante ni yéen a àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média am na itam beneen enveloppe bu toll ci dix millions bu wàcc mu ngi jóge ci euh, Khadim Ba Locafrique donc Khadim Ba euh, ñu ngi koy gërëm euh, di ko féliciter moom def na ni ay waajuram ci taxawaay bu rafet ci secteur privé bi mu àndal àndandoo ak ñoom ci seen combat ak li nga xamante ni moo di coronavirus donc Khadim joxe na enveloppe bu toll ci dix millions jot naa itam beneen enveloppe léegi nii bu jóge ci mbay saar Sénécar Tour c'est ça alors mbay saar itam Euh, joxe na montant bu toll ci dix million voilà dix million mooy montant bi nga xamante ni moo wàcc léegi euh, joge ci euh, Mbaye Sarr bu Sénécartour beneen montant bu toll encore ci dix million ndaw dix millions yu bëri maintenant bu ñu ko naree jàppoon nii moom waxuma la coronavirus rek moom dina mer ba dem yoonam parce que loolu la ñuy ñaan lu toll ni ci guddi gu ñuy doog a tàmbali rek kilifa bu ne yëkkati dix million yeneen kilifa yi yëkkati vingt millions loolu y secteur privé bi euh, pour faire ça euh, tey ci télévision Futur Média donc Mbaye Sarr ñu ngi koy gërëm beneen enveloppe bu tollu ci dix millions euh, jógee ci Eliman Lam Eliman Lam teg na ci table ji moom it tey ci guddi gi montant bu toll ci dix millions ñu ngi ko ci gërëm bu baax kenn du ne gulet donc Eliman Lam teg na dix millions ci table ji nga xam ne ni Euh, moom la ñu euh, ibbi tey ci guddi gi ci télévision Futur euh, Média beneen montant bu toll ci dix million jógee ci ki nga xamante ni moo di Tabaski Thiam Tabaski nag ku ne xam na ni jigéenu jàmbaar la moom boo ko fekkee ca fa muy liggéeyee biir Dakar soxol day sedd Euh, donc tey euh, bu dee dafa àndandoo ak secteur privé bi euh, joxe enveloppe bu tollu ci dix millions ngir xeex coronavirus mënuñu lu dul rafetlu ko gis ngeen ni dix millions xaalis la te ñoom bu dee kenn ku ne jaral na la sacrifice nga yëkkati montant boobule ça veut dire encore je le rappelle que l'heure est grave l'heure est grave na ñëpp góorlu ñi nga xamee ne suñu borom dimbali na leen ñu doon ay investisseur nekk ci secteur privé bi ku ci nekk def nga sacrifice yëkkati somme bu tollu ci dix millions dugal ko ci xeex bi yéen ñi nga xamee ni amu leen dix millions na ngeen euh, farlu euh, respecter li nga xamante ni euh, mooy mesure d'hygiène yi ministère de la santé digle donc beneen yóbbante bu yegg si enveloppe bu toll ci dix millions jóge ci ki nga xamante ni mooy soxna Momi Kébé mu Sëriñ Saaliw soxna Momi Kebe mu Serigne Ablaye Tage euh, soxna Momi Kebe bu xel koom euh, donc moom euh, loole mu def du ñu ne guléet ndax taxawaay boobule yàggal na ko ci réew mi soxna Momi Kebe mu Serigne Saliou teg na montant bu tollu ci 10 million ngir jàppandalam ci xeexuk coronavirus bile tey ci guddi gi beneen montant bu toll ci 10 million Euh, jóge ci ki nga xamante ni euh, moo di euh, maître Dior Diagne maître joor Diagne di suñu yaay di suñu xarit joor moom Pénéré xam nga yàgg ngeen dégg mag ñi naan yaayam Pénéré moom la jeg ji waate donc ren bu ñu demee ba toll ci xeex jàngoro bu ni mel Sénégal soxla ko moom joor jóg mënuñu lu dul rafetlu ko donc maître Dior Diagne joxe na montant bu toll ci dix million ñu ngi ko ci gërëm bu baax. ñu euh, euh, wax itam beneen montant euh, bu jógee ci beneen kilifa bu yàlla baaxal di maître Lika Ba maître Lika Ba ku xamul maître Lika Ba dégg nga ko ci mën def lu baax ci mën a jàppale réewam ci mën a jàppale itam doomu aadama yi donc maître Lika Ba teg na ci table ji enveloppe bu toll ci dix million ñu ngi koy gërëm bu baax moom maître Lika Ba jërëjëf ci taxawaay bi Sénégal amul seen fay yéen ñi nga xamante ni euh, yéen a dugal ay montant yu toll noonu ngir xeex li nga xamante ni euh, mooy coronavirus bi euh, beneen montant bu jógee ci Khalifa Camara xalifa Camara itam ñu ngi koy gërëm bu baax ñu ngi may xamal léegi ni moom it ci tàng-tàng bi tey ci guddi gi teg na moom it enveloppe bu toll ci dix million que des dix millions voilà ay dix millions lay dégg depuis sànq ñu ngi koy gërëm bu baax moom Khalifa Camara Moustapha Ndiaye notaire euh, moom tamit euh, yóbbanteem yegg si na euh, ci guddi gu exceptionnel bii nga xamante ni ñu ngi def collecte de fonds ngir combat bi la nga xame ni moom la ñëpp dëgmal jëmale ko ci coronavirus bi donc Moustapha Ndiaye notaire joxe na montant bu toll ci dix millions Moustapha Ndiaye notaire ñu ngi koy gërëm bu baax Oumar Ndiaye bu Jàppo SA Ousmane Ndoye Ousmane Ndoye voilà Ousmane Ndoye jàppo SA euh, moom it euh, joxe na montant bu toll ci dix millions voilà def na ni Idrissa Thiam de <laughs> voilà donc Idrissa Thiam mi fi toog euh, moo ibbi baal bi ak dix millions ñu ngi ko ci gërëm bu baax gërëm tamit waa jàppo SA Aziz Ndiaye ñu ngi may xamal ni itam Euh, moom mu ngi ñëw rejoindre ñu aussi ci plateau bi euh, moom it Aziz Ale Ndiaye euh, joxe na montant bu toll ci dix millions lu bëri ci production bi ñu leen di proposer moom Aziz def ci soobu bopp ba tey bugguñu sax ku leen lim waaye que muy moom que muy Eliman Lam ak seen ay staff bopp ba tey ñu ngi bokk ci mobilisation bi lee nga xamee ni tey exceptionnellement yéen a ngi koy seetaan ci télévision Futur Média ba pare Euh, li ci am solo mooy képp koo xamante ni joxe nga dix millions wala vingt millions ñii fi toog tey ñoom ñoo ko sooke que muy Mansour Kama muy président Idrissa Thiam muy président euh, euh, di Agne euh, muy président Serigne Mboup muy suñu papa jii di Alaaji Mor Mati Sarr nga xamante ni li ñuy ñaan mooy mu yàgg fi coow li coow li ñoom la donc tey bu ñu demee ba ay kilifa fa ñu toog ñeme dugal ay montant yu toll nii ngir boole seen doole ci combat wu xeex coronavirus bi c'est grâce à eux donc ñu ngi leen ci gërëm bu baax waaye nag nee nañu peccum liir bu neexee ndey jaay jàpp ca mbagg ya ñun ñiit bu ñu fi toogee ba yi nga xamante ni ràññee nañu leen ci patronat bi ràññee leen ci secteur privé bi c'est grâce au directeur général bu groupe Futur Média di xale waaye moom it ci secteur privé bi la la la bokk muy euh, président euh, Birane Ndour alors tey euh, bu Serigne jaaxle Mansour Kama jaaxle Birane Ndour it jaaxle na ndax ku ne xam na ni secteur privé bi ñun ñii tey ci la ñu bokk et que ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu jiite kenn ku ci nekk du ñu la baal dara bu fin du jotee muy man wala muy Ahmed Euh, moom Birane Ndour bu ñu fayul dañu koy fekk biroom euh, donc tey secteur privé bi dafa jaaxle à un point boo xamante ni ñoom ñu ngi góorgóorlu euh, ngir def mobilisation bu exceptionnel bi alors ñu ngi xaar itam yeneen kilifa ku ci am montant booy joxe n'hésite surtout pas am ngeen suñu ay numéro téléphone yu télévision Futur Média ñu ngi nekk en direct ci guddi gi tey ngir mobiliser ñi nekk ci secteur